Saku sàkku wer gu yaram buñ ko tanku ay du MC bop borom bu lay jël si du lay tagu magi jaaxle ndaw yu waru feba duggi gambi waru kuli nafsin sayi khatul mau maw ci deebi moo ñu teebu julli jamu yalla na bo dewe mo lay teru, fagaru len bala xode ku len bala lak raxasu len bala tak Then it jamu lañu wagu fu ñu dugg di bëgg Pandemic is fucking real never take it as a deal Tenang nag lañu tej naaj bi tang ñëpp di daj mburum sarax ak tej tayi tejna jaka ye jotayi denka nañu raha suɓe tayi government bi tëjal lañu border bi banga sa loxo bi ma ne may mamita asalaamaaleykum doy na file raxasu mane mane ne ma ne war na ku ne mag wala xale ma ne squad ñu leena jema fatali ñuy raxasu di bay téré yi di meyante one meter corona lu am la is something real yeah stick with us Assalamualaikum. Assalamualaikum. ah rasa Assalamualaikum. rasa Assalamualaikum. rasa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. meew mandarga mi xàmme naa ko waaw dañ daan ñëw dëkk ba ñoom foog naa am nañ rajo sax rajo rajo am nañ ko boo nekkee dëkk ba da ngay dégg euh, ñuy maye ay crédit <laughs> waaw waaw ñii ñoo baax ñoom de moom xam naa ne kenn du ñoom waay waaw waay Banjul a ngoog waay Banjul <laughs> ñoom fu nekk dañ koy di seen te seen ko yu rafet ak garab yu taaru yi waaw <laughs> Banjul waay xoolal ma xoolal ma taax yi Banjul waay waaw waaw ini dafa mel ni aaj bala di way <laughs> yaay mas masuma koo gis nak, masuma koo tek bot ci xaalis rek laa koy gis mooy téeméer ba waay waay aaj waay xam naa ne jàmme moom na fi de waaye yéen man lii moom ay toogeekaay la yéen lii du daanu ci kaw bopp nit ñi lii wóor naam waay waay waay Banjul waay xoolal ma rek na ngeen def yéen si ngi <laughs> si Hey Banjul mu ne ko fii moom xam naa du ma fi yàgg ndax dégg naa bañul dafa sedd waaw ah, te bàcculoo moom bu seddee moom eh, eh, neexut a eh, toppatoo xoolal ma xoolal ma néeg yoo taaru yi rek waaye Banjuli Njaay mu ne ko xam naa ne fii de moom fii wóoru sax ma fi yàgg ndax fii ma fi yàggee moom dëkk ba mën nañ ma ñëw jël ci waaw Banjul waaye ak oto yoo rafet <laughs> Banjul waaye naka jek waxon nañ ma li way bo fa yeggee taax nga leen di séenee sa kaw han xolal ma tax ci kaw nga ne gudd sa morom nga ne bi la han xolal ma suuf gi ni nga ko déree ah bay réewum tax way way yéen coronavirus way yéen ni jamul du sooli ki ba pare do ko wax sax massa waaye réewum taax fii amul wax salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ndox laa soxla. fii nooti nisfri lu nekk danga ko dee jënda ndox five dalasi la xanaa bii moo nekk sa first time of being here. soxna si foos de moom man sax weer rek laa si xam dimbale ma ci ndox man ma raxas ci soli bi sama loxo li waaye yéen soxna si kan mooy seen village wala meen comité bi fii. village fii tamit mu naan ma village yow sa faana faana bu dëgër bi corona sax mu narul la dara mu naan village fii de city la fii nekkul village. de soxna si caaxaan loo nii. caaxaanu ma suma dégg laa ñun nga xam ne suñu dëkk Kero Marché da ngay naan ndox ba wala ngaan kenn du la feeku dërëm. fii siti la balaa ngay ñëw fii da war a déglu waxi ni lu nekk xaalis moo ko fiy génne five dalasi moo fi génne soxna si five dalasi bi ma nekk bi nekk sama poos bi nii moom laa fas yéene eh, jënd yóbbal yët ko gune. loolu sama yoon nekkul si. nga nar koo jël nii waa soxna si yow ñàkk nga yërmande de. waaye pour wàllum coronavirus bi mota tax déglu ma ma jox la ko ma la coronavirus ñëw na aka moo bon ci système dama ko seet ba seetaat bo day liñ waroon a tëj la ti sooli mbaaxakande ko bul ko di defati si poplit bilaay paaku raxasul foo mun di toolu raxasul dama ne paaku raxasul foo mun di toolu raxasul bilaay jil ma ma rahasul jaratul wax man maa ngi ñaan yàlla fekkee weeru koor wi woor ko ba mu jeex bu ko defee waxtu juróomi yëpp du ma ci moy benn woor ko weeru koor bi ba mu jeex teg waaw nara fas yii ne delluwaat dëkk bi ndax fii bu ma fi dee ndax corona kenn du ma gisati dëkk ba duñ ma gis nu ma lay gisee nii yow loolu la ci leer mu naan doo delluwaat dëkk ba jànq fii buñ la ci xasee téye ba bàyyi la yow yaa tax jànq ñun suñ dëkk dafa fees tepp ak ndox bi doy na loo gis dafa bëri trop Jomos ma five dollars yi da nga dem. mu Tu jox ma sama five dollars yi sa tuñ mi nii five Tu yi nii Tu li. tuñ ya, ya, bi de du ah, pour yow. dama Tu soxlawul sax. soo ko soxlayee sax ak sa kuru si bëri Tu waaw yow xam naa weeru koor bi sax doo ko là. Tu lan ndax sa yaram bi amul benn yàpp yax kese la Tu ne. yow de mën naa yow a em dama ak sa Tu bi soo ba bëgg a dee. waaye mu ngi nii là mandarga mi mom xamé nako waaw ndax eh, ki la ja ja jakas waaw jakas la mu ngok <laughs> mandarga bi mom xamé nak ay ah, li xamna warna dis de li waaw waaw waxon nañ mako bo démé réew ndax mom lu ne nga fay gis mo taxit gis na lu ne waaw li mom xana ñeto kay la nak bo bëgg yeul ci kaw rek ñatt ni ba ca kaw way <laughs> rew taxaway ma ne paaku raxasul yow coronavirus ñëw na kenn talatul joxe ngénte kenn talatul dem si takay yow jaakay yëpp ñu tëj feebar bi nag ñëw na bilaay walaay poñe diine moo waral ñu ngi kal lii moom dafa mel ni jàkka rek xaw ma juma waaye ndeysaan fale li rek ah jàkka yeeg juma ngi tëj mu ne waaye feebar bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ko ci rafet li way ni la politique da ngeen di bokk nek ben waaw yóbbu dekk bi ci kanam bu yaay jame bokki ak euh, Ousseynou Daba ba ba def ko ci ben auto ni waaw loolu xewal la way xoola man numay xolé son bop rek wer wa nga set wetch waaw politique ni la fa ngeen di manko ben benn ah? salam alaykum may ndax jaamoo rek salaamaaleykum alhamdulilah ah bala ma waay loolu ma raxasu ah raxasu bala lu xew si dëkk waa yéen waa Banjul yéen lii lan la ah lu xew yéen da ngeen maa bëgg a mirage rek toog juróomi dërëm bu ma jotee am sama poos ndaw si la jël na ko na na loxo ngeen bëgg a sama juróom bul ma raxas sama loxo da nga fay pour raxasu waaw loolu fu ma

yéen bu ñu amoon ñu mel ni yéen. déedéet déedéet déedéet ah dafa am Orosewel dafa am Orosewel bu sëmu. waaw ah Abdou Chawel Abdou Chawel ah. Orosewel waaw mooy lu ñuy fóoti. ah raxasul Ondo Sewel baa ngi nii billaay kon paaku raxasul bu ragal loolu billaay wallaay kon paaku raxasul dafa ëpp yomba tawat bi kon na fi jógee kon nañ ko ñaan coronavirus billaay demal sa yoon yow demal sa yoon kenn du la yaatal yaa fi gën a néew. man de xaw ma doon Omo Kos laa xam man ñun suñu dëkk Omo Kos lañ xam moom la ñuy def ci ci fóoteekaay bi ah waaw sëñ bi yeen mom yalla rek mo len di fay fóote ma di fi ne fay la bul fay de ah bul nangu bul nangu fay xalaatuma fay fenn waaw bul fay fi ngeen dëkkee ah waaw fi fi leen dëkkee lu mel nii nag war na ndax eh, manoo manoo ñàkk xaalis war raxasu doo raxasu boo amee feebar doo ko eh, eh, wàll nit ñi dëgg la kañ ah. dëgg la dëgg la nit ñi nag bu ko bu ko nit ki amul mu la kañ dëgg la dëgg li ngeen def la mm-hmm, mm-hmm. mooy Moscrot ak Losta. Mosquito ak non Moscrot. Moscrot mooy Moscrot ak ah, waaw waaw waaw wax ngeen dëgg. Losta. waa foofu de sama mag boo yooyu la dëkkee ay eh, sama rakk kay. man maa ngi juum sax ndax ki la yóbbu sama xaay bi ah, kii na sama xel mi. dafa nekk nga juum. Eh, eh, kër kër Omar Sène mooy jokkaadu boo demee ba jokkaadu noonu wàcc noonu ci raaraa bi noonu dem waaw nga romb nga romb kër jarga boo rombee kër jarga nga am kër Omar Sène la waaw waaw sax sori naa waaye xam nga mbokk fu mu ne waaw foog nga dem seeti ko waaw mbokk moom du sori juróom waaw léegi bu waree man la jox fukka ñaari juróomi lépp soo ko boolee mu nekk fukka bi nga yokk si si yóbbal waa sëñ bi yow yaa def lii waaw waaw garawul bii waaw bu fekkee waaw du ma fay kenn bii mooy bu xonq bi bu xonq boo ko boolee ñaar mooy bi mooy bi xam naa ko waaw waaw waaye yow sëñ bi yow yow yow la yàlla fay waa sëñ bi sëñ bi yow ku la bugg ku la bugg yal na fan waaye ku la bañ yal dee yow ku la bugg yal na ngeen andi seen may di baawaan waaye yow nii laay def ak yow ay moos lii lan la ay waa sama jën nga di maa bu di saay saay eh, sëñ bi yow yàlla laay fay yow xam naa bu ma demee danaa ñëw ñu waxtaan ñu pelloo waaw waaw <laughs> baax na dana ko dégg yaan corona corona virus xaj nga ñu mbooloo corona corona virus weer baa ngi ñëw weeri koor la billaahi wallaahi kon mu ngi ñëw corona virus corona virus ñëw na aka moo bon si système dama ko seet ba seetaat boo day liñ waroon a la liñ waroon a tëj la boo day liñ waroon a tëj la bu ragal loolu waaye sa xel ma jox la beneen xel ma ubbi suma xel Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. virus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. seetaan fii si Sahel Network TV man la seen xarit seen doom di Abdoulaye Souare ñoo ñëw ak yéen pour waxtaan ak li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne mooy lëmbee réew mi kenn di réewul mbir ne feebar bi jéggi na dayo mooy benn feebar muy coronavirus nit ñi di ko ooyee Covid 19. tey nag ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Mosque Road ak Johnson Blanchard ku bàyyi xel tey ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy Mosque Road boo xam maa ngi nii gis ngeen lii nga xam ne mooy mini market bi nga xam ne moo nekk Johnson Mosque Road ak Gloucester sooy dugal foogal soo sa max no max no entering te tamit fongat sooy dugal fii yéen a ngi koo gis gis nga kii mu ngi waaj a ñëw dugal si fii nga xam ne fii si mini market bi mu ngi raxas loxom bi lii mooy wér na lii mooy firndeel ne am na ñoo xam ne fii nii bi nga xam ne mooy biir Banjul respect nañ li nga xam ne mooy loi bi nga xam ne moom la nguur gi tëral mooy lan fii mun a daxa feebar bii nii nga xam ne moo bi moo sonal muy ban feebar coronavirus nit ñi di ko wax lan covid-19 ñeneen ñi ne mbas mi lan lan lan moo ñu see mun a sawel la foog ñuy sol suñ face mask yi di raxas suñ loxo yi every time ba pare ñuy def social distance ba pare ñuy bàyyi public gathering si loolu rek a ñoo mun a sawel loo tey nag ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Mosque ak Gloucester Johnson foofu nañu nekk muy si fan Mosque si mini market bi foofu noonu lañ nekk nii si Johnson bi ak Gloucester maa ngi ni am fi sista ñu ko oy ma bàyyi leen mu wax turam tur bi sista bi antero mu seeka seeka baay nuyu na la jërëjëf anti gis nañ na feebar bi sonal na réew mm-hmm. sonal nañu sonal na Gambia lan nga am di wax ci nga xamne moy mooy bi di ni nga xamne moy coronavirus ñeneen ni covid 19 ñeneen ni mbass bi yow naka nga ko ooyee sa impact xanaa li lëmbe réew mi daal laa ko ooyee feebar boo xam ne kenn xamul fan la jógee ak moo lëmbe réew mi su bokkuma coronavirus su bokkuma la su bokkuma la yal nañu yàlla àttee yow kenn xamul fu mu jógee waaw ba ma waxee loolu ba pare maa ngi nuyu sama naataango yi di leen nuyu yéen tamit waa Sahel di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax parce que soo gisee ñu leen ay jaajëfal tamit yéen a ngi génn yàgg nañoo gis loolu génn ngeen ci réew mi fu nekk bi du benn yoon bii du ñaari yoon yéen a ngi génn di lijjanti nit ñi di seet nit ñi di jàkkuwante ak feebar bi ak nit ñi di leen seet naka lañ ko dundee ak yooyu noonu pour di leeral nit ñi tamit ne feebar bi lu am la. lu am la soo gisee ñu ne lu am la dañ ko war a gum ñu woor because mu ngee lore mu ngee reye mu ngee tëddal nit ñi loolu yëpp ñu ngi koo gis nañ gëm ne feebar bi lu am la waa Banjul maa leen ay nañ leen gëm ne feebar bi lu am la nañ téye suñ njaboot gi nañ toppatoo suñ njaboot gi seet leen bu baax a baax a parce que xale yi tamit ci lañ bokk pour ñu aar leen suñ aaree xale yi rek aar nañ suñ boppam xale yi ñoom ñu ne duñ du leen affect waaye su leen affectul tamit dina ñëw fekkaleen si kër gi ay mag ñi nga xam ne ñu ngee doxaale ak feebar xale yi doxaale mag ñiy doxaalee feebar soo ñuy yokkal ko beneen jàngoro lan la fu jëm xanaa ñu toog ñàkk a mag parce que li ñàkka rek fu mu nekk nii daw na yaram métti na soo ñu ngay joytu feebar bi bu baax di gomloo nit ñi ne tamit dafa am nañ leen toog suñ kër di def lu ñu wax nañ leen max nañ leen daw li ñuy wax covid bi ñu wax nii am na torop nañ leen toog suñ kër yi bu baax a baax a baax toog saamawante te yàlla ñu yàlla suturaal amiin yaa rabbi anti comme yéen a ko déggandoor mbokk yi mu ne moom wax na ko ñetti yoon feebar bi demal te bañu wax na ko ñetti yoon yéen ko dégga muy ban feebar muy coronavirus ñi ñi ne ko lan ah, covid 19 ñeneen ñi ne lan mbas mi noonu lañ ko de ooyee ñene ko dégga si gémmiñam anti ñu ñëwaat ak yow gis nañ ne feebar bi ñu ne am na si ñoo xam ne ñu ne nit ñi ñu ne feebar bi daf politique la politique daf si rax yow lan nga am pour wax si loolu ah man de góoma ne politique la parce que soo déggee ñu naan politique la dañ la ci jox dara loo am waaye joxewuñ ci kenn dara lum am dundaluñ ci kenn loo xam ne amuloo ko sa kër woon ba tax ñu naan politique la parce que politique boo gis tamit am am la moo tax ngay wax politique loolu boo déggee ñu ne dara politique la rek dafa fekkee yaa ngi cee am dara waaye feebar bi loo si amul lu mooy tiit ak jaaxle góoma ne nañ ko ooyee politique man day góoma ne politique la na nit ñi bay loolu noonu bañ a góom ne lii politique la lii du benn politique man day gómewu ko jàppewu ma ko te maa ngi ñaax sama mbokk yi tamit ne buñ ko jàppee politique nañ bàyyi wax boobu noonu politique la dafa dafa dafa dafa ñaaw dafa ñaaw politique jotagul ba tax ngay politiquee feebar kon feebar bi jarul ñu ko wax ne politique la nañ sàmmwante rek te mus yàlla musal ñu si daal comme li may wax rek daal yàlla nañ si yàlla musal yàlla nañ si dégg a doy jërëjëf mm. anti comme ni nga ko ñu si yàlla musal mu sol boobu noonu foog ñu ñu jëfee ko. mooy lan. Mhm. foog ñuy suñ face mask yi. ñu sol suñ face mask yi di moytu li ñuy tere yooyu noonu téye xale yi ñu toog si kër yi am seen place ak yooyu noonu. ten o'clock coffee bu ñu wax nii pour ñun la du pour nit ñi parce que distance bi ñoo bañ noonu mooy loolu pour jokkuwante bi rek jokk jokkuwante bi da ngaa toog sa kër sax xamuloo fu nit di jógee di la ko isil maa nga dox si bee demee am foofu la ko isil virus la virus bi kenn moo xam virus moom laa duggee because ñun yëpp kenn xamul lii nan laa duggee dañ la naan moytul lii defal nii ngelaw la lii ak lii laa jaar sa bakkan ak yooyu noonu kenn xamul mun ngaa toog sa kër mun ngaa def sa max def sa yi nii yëpp sax terewut sax feebar bi ñëw fekk la si mooy daal ñu si yàlla musal daal te buñ si yàlla musalee nañ leen toog musul suñ boppa musal suñ boppa ñun tamit yéen a ko ko dégg mbokk yi yéen a ko déggandoor mbokk yi mu ne foog ñu musal suñ boppa yàlla musal ñu nan lañ ci mën a muccee mooy lan foog ñuy sol face mask di raxas suñu loxo yi ba pare ñu bàyyi wër bu bari bi saa yuñ ñu de def social distance loolu rek a ñu see mun a génne anti ñu ñu ñëwaat si biir Banjul anti gis nañ ne waa Banjul comme curfew bi nga wax ni nako nga gisee curfew bi yow ak naka nga koo dundee ak sa morom yi biir Banjul naka nga ko gisee yow curfew bi hmm, curfew bi de ñun ñu ngi toog suñ kër yi ñu ngi toog si kër yi te damay dégg damaa dégg tamit ñuy wax ne am na ñoo xam ne dañoo nekk di riite wante ak policier yooyu noonu maa ngi leen di ñaan loolu jarut kofi toog di def lii foon it is not a foon loo xam ne danga fa war a nekk nga nekk di ko dem di dirité wante policier yooyu noonu toogal sa kër ki la ne toogal sa kër ki la ne sangul sa taar la bugga buñ la ne toogal sa kër mooy sa taar moom lañ la buggal parce que sa taar mooy mooy lan sa jaama sa wérgu yaram tamit mooy sa jaama kon nañ leen toog suñ loolu laa doon ñaan pour nit ñi ñu toog suñ kër bàyyi diite wante bee nit ñi ak yooyu noonu jaru ko fi waaw jërëjëf anti gis nañ ne tey feebar bi sonal nañu naka nga gisee comme la nguur gi ñoom naka lañ si taxawee naka nga gisee nguur gi son taxawaay si feebar bii nii especially président bi muy Adama Barrow naka nga gisee taxawaayam si feebar bi. waaw Adama Barrow moom maa ngi ñaanal yàlla lépp lu mu yéene di kabe yal na ko si yàlla jàppale parce que soo gisee mu génn moom moo njëkk a génn di wax di gomloo nit ñi feebar bi yooyu noonu so nañ leen jàppale noonu ministre of health tamit mu ngay def lu mu mun mu ngay def lu mun pour jàppale nit ñi ak yooyu noonu pour feebar bi di ñu gëmloo de feebar bi am na ñun ñoo desee gëm ne feebar bi am na nañ gëm ne feebar bi am na because Adama Barrow lu mun mu koo def lu mu ngi koo def pour jàppale nit ñi ñu toog seen kër yi wax feebar bi am na nag moo am solo gëm-gëm moo am solo nan nit ñi gëm ne feebar bi lu am la Adama Baro mu ngi toog këram saamu boppam ak yooyu noonu buñ jàpp ne Adama Baro dafa toog rek di politique wala lan ak yooyu noonu toogu foofu noonu di politique di wax ak yooyu noonu su nekkoon si biti ak ñun ni ni moo ni ñoo moytoo noonu laa moytoo soo ñun tam nañ moytoo tax ne moytoo suñ boppam ba feebar bi bu ñu laal because ñun suñu laalee du ñun ñoo ko jël wàlla ko Adama Baro parce que dégguloo ko gisuloo ko soo doo ko mën a wàlla mu ngi toog këram di déglee ñu toog ne leen toog suñ kër yi ñun ni tamit jàpp feebar bi lu am la jërëjëf mbokk yi yéen a ko déggandoor comme ni ko anti waxee rek anti ma bàyyi la nga noppale ko tuuti amoon dañ fi yeneen gan yi nga xam ne ñu ngi taxaw nii fii suñ boor nga xam ne mooy suma sista bu baax xanaa ma laaj ko turam sista na nga def tur bi nde awa réeréwul mbir ne feebar bi kon feebar moo fi am de covid 19 ñeneen ñi ne ko lan coronavirus ñeneen ñi ne lan ñu ne ñu mbas mi ñu ne mbas mi. mbas mi <laughs> damaa tëraay rek waaye mënu maa wax. waaye nag macha allah Covid 19 bi moom ku ko gisut dégg nga ko. àdduna bi yëpp la lëmbee fi mu nekk nii fi mu nekk nii ñu ñoo mën a aar suñu boppa du président du ministre du kenn ñu ñoo mën a aar suñu boppa nañ leen takka mag nañ leen raxasu nañ leen toog suñu kër toog leen seen kër lañ wax nañ leen toog suñu kër. waaye nit ñi dañ dëgër boppam nit ñi doomi adama si boppam moo dëgër bopp doomi aadama si boppam dafa dëgër bopp waaye ku nekk dafa war a toog sa kër ku nekk yaa mun a aar sa bopp yal yàlla may ñu mun a aar suñu bopp yal nañu yàlla defal jàmm musal ñu si seytaane ak musal waa balaa musal ñu si feebar bi waaye macha allah keroog dama ne feebar bi dem na te dem na te incha allah feebar bi dem na ku nekk kon loolu laa wax Gambia moom mm-hmm. feebar bi dem na mm-hmm. allah ndey bi dem na waaye gaynde nañ fagaru moo gën faju mm-hmm. la du dëgga ñu sol max raxas suñ loxo yi def lan so toog social distance social distance loolu rek moo ñu mën a sawee si feebar bi suñ ko defee feebar bi dina gën a wàññeeku ndeewa lan nga am puy wax ñi nga xam ne ñu ne feebar bi politique daf si rax xëj na ñoom ñooy politique xëj na ñoom ñooy am xaalis xam nga politique moom xaalis la xam naa ñoom ñooy am xaalis moo tax ñu ne politique la waaye feebar bi adduna bi yëpp ne feebar bi am na ñu ne amul ah yal na ma yàlla jéggal de éneewu ma ko benn doomi adama de waaye su la ñamaloon rek wala mu rombala tuuti rek di xam ndax am na wala amut waaye yal nañu si yàlla musal yal nañu si yàlla mu musal si mboolem képp ki doomi aadama gis nañ ne du ñàkk dem nga si social media bi dégg ne ñu ne président bi dafa war a génn wax léegi wax na yow si biir waxam bi si waxam bi nga xam ne wax na ko barki démoo njaay du ñàkk setaan nga ko lan nga am lan nga si jàngat yow lan nga si jàngat si waxi président bi foog naa ne bii mooy fifth time mu ngi adresse nation bi affaire yi foog naa juróomi yoon mu ngi adresse nii adresse bi moo ko nekk ku si déggu nag foog naa yaa xam ñu ne ñu ngi toog ñu ñu ngi toog suñu kër Adama Barrow lim li ko war rek la def bi mu ngi toog këram xam nga Adama Barrow feebar bu ko fa fekk macha allah ñun ñii suñ bopp ñun ñii suñ bopp ñun ñoo war a moytu mu nekk nii ñun war a moytu fi mu nekk nii Adama Barrow mu ngi toog këram te incha allah rabi feebar du ko laal ku nekk yàlla. lu waral Adama Barrow mm. man xam naa ne feebar du ko laal ku nekk doomi Adama la nag ñun ñëpp doomi Adama la. waaye feebar du ko laal su neexee yàlla ndax xol bu set macha allah te ñu yàlla nañu yàlla may xol bu set. amiin yaa rabbi incha allah. bala ñoo demaan Léona nga ne feebar bi limbi nañu sonal nañu luñ mën a def rek ñu mucc si feebar bi foog ñu def li nga xam ne moom lañ tëral. social distance. Mhm. raxas suñ loxo. Mhm. sol max. Mhm. toog suñ kër. léegi ñu ñëwaat si biir réew bi ñii ñu ne feebar bi. comme ni ma koy def si loxo politique yoo nga ne feebar bi fu ñu la ko wax ñoom ñooy politique. ñoom ñooy politique waaw. comme na ko waxee. ñoom ñooy am naa xam nga xaalis moom politique moom xaalis la àndal ñoom dañoo jox xaalis ni politique waaye ñun ñu moom politique gu xamuñ luy sax feebar dinañ ko jox boole politique ah si ñoom laa ko déggee te nañ leen bàyyi ñuy wax. yal nañ si yàlla musal ñu. amiin yaa rabbi incha allah. jërëjëf. jërëjëf bala ñoo dem rek naka nga gisee couvre-feu bii nii nga xam ne moom la nguur gi tëral tey nak nga yow nak nga ko dundee ak nak nga gisee waa Banjul di ko liggéey si sa gis man de boutique laa am boutique pour jaay laa am saab ten balaa ten sax su ma mburu su jeexul su jeexee su jeexul yëpp damaa tëj te suñ koñ yëpp nag dañoo toog duñ génnaat su ten tëgee rek ñëppay dugg si biir wax man li ma gis gros ta moom su ten tëgee rek ñëppay dugg amul góor amul jigéen amul xalal amul mag nag ñun ñu ngi ko dundee waaw mbokk yi yéen a ko déggandoor mu ne ñoom ñu ngi ko dundee feebar bi ñoom ñu ngi ko dundee comme niñ ko waxee rek maa ngi fi amaat suma yeneen sista bi nga xam ne moom moo taxaw fii ma bàyyi ko moom mu introduce boppam salaamaaleykum tur bi jama silsé dafa mel ni max bi loolu lañ ko def yaa jama waaw yaa jama leen fa ah waaw yaa nga gisee feebar bi nga xam ne moo ñu sonal tey biir Banjul limba dina dëkk bi daal mhm. sonal na dëkk tax na ba dëkk bi amatul jàmm lekkaatul naanatul dëkk feebar bi ñëpp jaaxle neen waaye ñu ngeen ñaan yàlla yàlla génne ko fi parce que ñi ñi sonn neen ñu ngi dëkk Independence Mosque Road ak Independence Drive ñu ñoo dee gis FID ñu ngi yóbbu nit ñi FID ñu nit ñi nit ñaa ngi naan amul nag waaye lu am la waaye sant yàlla ba mu bari parce que duy sonal baadoola parce que bu doon sonal baadoola rek dafa métti parce que feebar boo xam ne la amul garabam amul lu ko aar waaye ñu ngi sant yàlla ba mu bari parce que lu ko fi gis yan na ko fi génnee. fam jógee fa la ëppoon waaye bés bu yàlla woon ñu suñu boppam su xol yi nekkul benn rek yàlla daf ñoo woon benn di ñu woon ñaar di ñu woon ñettam ñoo war a wécceeku ñun nag ñu ngi sant yàlla ba bari waaw parce que li ma si gis démb rek amul xaleel amul mag ñëpp a jóg. discipline dëkk bi lu mu doon ñu dañuy toog te parce que dañuy yërëm di di bale parce que lii amul affaire politique amul affaire président bi amul affaire maire bi parce que lii ñun ñëpp la ku nekk laa dal feebar bu fi ñëw la kon nag neen defar suñu xol yi ñu nekk benn ñu jàppale Adama Barrow si lii mu mun a liggéey dëkk bi mun a jàppale boppam feebar yi mun mun fee jógee loolu mooy suñ doole ñun ñun waa Gloucester nuñ jàppale Adama Baro pour liggéey bi mun pour feebar bi mun mun a dem parce que feebar baa nga jaxase nit ñi fi mu nekk soo amee gan bu jógee senegal ñu ne a na deelu soo amee gan bu ñëwee toog sa kër mu tëdd ñëw su fi feebar bi amutoon loolu yëpp du am parce que bi moo feebar bii bari dëkk bi dina jaxasoo ji ëllëg waaye ñu ngi leen ñaan yàlla loolu génn na fi lii nag du affaire politique parce que feyuñ kenn joxuñ kenn mayuñ kenn nit ñi am seen doole am seen éenée parce que ñu ñu am njaboot ñoo am yaay te dañ ne si mag la gën a aay te ñu ñoo lu mbot mbot am nañ fifty dem si kaw moo tax ñuy fagaru xale yi men raxasu ku si jógee marché balaa ngaa dugg sa néeg ak yor sa mbubb nga sangu ba set nga raxasu tooga sa tooga soo paree balaa nga teg sa añ defar sa eau de ak sa xorom xale yi raxasu soo leen paree teg leen xale yi si biir comme ni ko kii waxee rek xaleel mooy dem xaleel mooy indi parce que mag bi mun naa toog waaye mënoo teg sa xaleel waaye ni ñu contrôle xale yi ñu contrôle suñu boppa mas bi moom lu waa buñ ko teg yi fen fu mu ko def suñ kanam di aar suñu boppa su mënoon sol gu sax sol gu la joxante loxo parce que loolu mooy yoon dëkk bi nag métti na ñu ngeen ñaan yàlla yàlla oyofal ko fi génne ko fa waaw xale yi nag ñuy dem di liggéey di sauver dëkk bi yàlla may leen kàttan yàlla may leen doole ba nga xam ne bu kenn feebar mbaa bu kenn toog ñu mun a liggéey Banjul mu jëm kanam Adama Barrow kontaan parce que man loolu laa gis Adama Barrow su kontaan rek ñu kontaan waaw bu kontaan rek ñu kontaan waaye nga am président pare wuloo ko jàppale parce que feebar bi dugg na State House dugg na fu nekk fu nekk la ñi ñaay wax fu nekk la feebar bi dugg parce que li yëfi politique li yëfi liggéey la nañ jóg ñu liggéey dëkk bi ku si am mbalit nga dégale ko sa soo mënee fay nga fay parce que moo tax mbalit ñëwatut dara ñëwatut nit ñi den soona feebar baa ngi bari mbalit yaa ngi bari si dëkk bi nañu dimbale si mbalit bi man loolu mooy li ma njëkkaa naxari nañu dimbale si mbalit bi mbalit bi bari na amul laaxa laaxa amul dara parce que démocratie la mbalit bi bari na ñu génnee mbalit bi waaw suñ génnee mbalit bi rek wér gu yaram dina am wasalaam mbokk yi na ko diga suma système moom wax na wax gi yëpp toj na yax bi waaye bala ma laa bàyyi nga dem rek anti jama naka nga gisee développement bi nga xam ne moom la Adama Barrow i def biir Banjul yow si sa gis-gis naka nga ko gisee. kontaan si rek ne Adama Barrow liggéeyut booba yow sa yaay dafa liggéeyut parce que Adama Barrow dafa liggéey Banjul bu njëkk ba sooy dem xew da ngaa tiye daala sol silipaas boo àggee si xew li toog soog a sol sa coquette waaye fi mu nekk di nga mën a sol sa coquette. dox ni la neex wax ni la neex ba ñu sekkee doo yóbbu sili paas sant yàlla bambali fi mu nekk gloss taa des ko ñu des bareetul ak UPS lay Adama Barrow mu ngi liggéey macha allah xëy na nga soo ko bañ a daw waxal ko jikkoom mu ngi liggéey mu ngi liggéey man jëma si si xam naa ne Adama Barrow mu ngi liggéey daw ma këram daw ma office am daw ma fen waaye xam naa ne mu ngi liggéey parce que na buy liggéey nañ ko dooleel am na ñoo xam na li moo liggéey gisuñ ko waaye ñun ñun ñu gis liggéeyam dinañ ko wax ku nekk nag fu la neex fa man Adama Baro laa ku nekk fu la neex fa man jëma si man. Mhm. Adama Baro laa. kon dafa mel ni yan yan place lañ liggéeyaagut dafa mel ni Glosta lañ laa la gis. waaw Glosta ni Bayanzwaay. ñoo des. Mhm. ak Oxford. Mhm. si benn ruxa. ñoo des parce que ma dama dee wër koy ñuy seet. naka nga gisee liggéey tali bi. tali bi moom neex na lool tali bi moom bu paree jaama sabar gu rëy laa fee oote Seex Faal hmm. waaw parce que dafa yaatu dafa yaatu tali fi nekk ni ku am xew jaru luye xool mu nga ko def sa buntu te ndek Adama Ba waaw loolu moom am na mbokk yi yéen a ko déggandoo toj na yax bi toj na yax bi yaxeet yaxeet yaxeet comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii fi nga xam ne mooy Mosque Road ak Gloster Johnson bi si mini market bi foofu noonu lañ nekka nii nii comme nuñ leen ko waxee rek wax naa leen ko mbooleem loo xam ne réer na la biir Banjul rek fan nga ko mun a amee fan nga mun a seetaan si ban télé muy Sahel Network TV foofu rek nga mun a am li nga xam ne mooy xew Banjul fii nii comme ñu waxaat leen ko rek wax naa leen ko subscribe leen si YouTube channel bi muy lan Sahel Network TV mooy YouTube channel maa ngi ni taxaw sama benn yaay booy bu baax yaa booy na nga def tur bi anti Bigué nuyu naa anti Bigué ndax nga gisee tey feebar bi nga xam ne moo ñu sonal sonal àdduna bi sonal suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew mu bëgg a ñëw pour tabaski mu nuyoo ñëw pour tabaski suñ doom yi suñ raka yi suñ yaay yi nga xam ne dañ bëggoon a ñëw sax pour tabaski ak seen famille mënuñoo ñëw naka nga gisee feebar bi nga xam ne ñu ko ooyee coronavirus ñi di ko ooyee mbas mi dégg la coronavirus lu dul bon. Mhm. man de bon depuis ma juddoo ba léegi maa ngi bugg a waaye li ma gis mosuma koo gis this year. 1990 xaw ma 1990 xaw ma naka 2009. Mhm. li ma si gis mosuma koo gis xanaa di ñaan yàlla yàlla teggi ko fi. parce que loolu rek lañ ci am. te nit ñi gëm ne am la. parce que xanaa nit ñi moto yi nekkuñ di daw rek su Red Cross ñi leen a gis every day. Mhm. ñii fii foofu dem fii foofu ñëw. té ñu ngi wone en ah, facebook li xew ci l'hôpital bi ñu ko wone youtube ñu ngi tas janoog moom mom diko gis ñu ko gëmul daf ne dalagu mbaa dalu seen hmm wa su dalon sa mboka té su dalu sa mboka sa des dal na sa frère mbokkaam mbaa mu dal sa frère papaam ñu gis ñu ñangé dé ko mënu mënu wala ko wax coronavirus li ma xam moy social distance raxasu di jafa xalé yi tegg leen benn place té nga mëk soo nga sétal yépp man loolu laa fi xam te ñi nag wax ji bari na ci dëkk bi politique dinañ ko nit dinañ ko politiquee feebar man loolu mosuma koo gis <laughs> politiquee feebar mosuma koo gis man maa ngi ko door a gis dégg ren ñii ñi di ko wax ne lii politique la lii politique ban façon bi politique ba pare yaa ngi gis li ñaa ngee dee yaa ngi étudier yaa ngi war a dem dëj te doo dem dëj parce que ñemeñu loo dem dëj yaa ngi xalaat ne su ma demee si dëj bi te mun naa am kii dafa am corona mbaa nga dégg dafa am corona virus mun na laa wàlla te su fekkoon ne daf laa waala rek mu em si yow sax ñu wax waaye daf laa waala nga ñëw walla ko waa kër muy sa doom mbaa muy sa jëkkër mbaa muy sa jabar oo muy sa yaay oo muy sa goro nga waala leen ko moo tax feebar bi man lu ma ci xam mooy oytu te gëm ne am la parce que feebar bi suñ jógee ba egsi fii dafa sori feebar bi si starting bi dañ ko wax ne du dal nit ku ñuul lan moo war tax du dal nit ku ñuul deret ak ak ak yi nakal salaatu yàpp ya, moo nekk si dëri nit te moo nekk si nit ku ñuul nañ bilif ne lii dafa am Gambia comme ni mu amee Sénégal la jógee balaa mu expliqué Gambia dem jógee Europe foofu la njëkk gën a bare waaye nañ gëm ne lii lu am la te ñu may nit ñi jaamal ku mun nga mobilise sa njaboot teg leen benn place ku lu la neex nga def waaye nga nga wax ne politique la man ci suma gis-gis bu lii du politique man lu ma biliif la parce que man naa ci koo xam ne am naa ko papaam dee na ci waroon naa dem si dëj boobu ba ci fotti dee ci ma waroon di jaabante waaye ñëma ñu maa jaale téléphone laa ekkati xool ko jaale ko kon nga xam ne lii dëgg la te feebar bi la feebar bi tàggale ay mbokk la parce que feebar boo xam ne doo ñëmeñ a seeti kenn am na ñoo xam ne sax dañ binda si seen bunti kër yi welcome ma kenn mm-hmm. ñii da ngaa koo sax nee dama fa bëggoon a ñu ne nekkuma kër te mun naa am kooku sax xëy na li ngeen bokka ay baay oh, yee seen yaay yaa bokka waaye yëpp feebar bi parce que loo xam ne su la waale wala keneen wala keneen te dafa gaal nañ gëm ne lii nu am la. jërëjëf Yaaboy. Mm-hmm. Yaaboy tey naka nga gisee li nga xam ne moom la luwaa bi tëral. Mm-hmm. muy lan ñuy sol max. di raxas suñ loxo yi. di def social distance. Mm-hmm. pare ñu bàyyi. gathering bu bëri bi tey naka nga gisee li nga xam ne moom la loi bi teg muy curfew bi ñu ne bu kenn génnaat su passé ten o'clock naka nga gisee loolu noonu yow man dama ci kontaan mhm. parce que li tax na ma ci kontaan dama am ay njaboot te suñ génnaan bi eleven duma mun a taxaw duma mun a nelaw dama dee nekk du ma nekk ma génn yurdoo gisu leen ma diw gisu leen ma diw waaye coronavirus liñ doon bañee fi nekk nii moom moo ko def dajale na mbokk yi by force su nekk sa famille di nga toog sa kër time it tëdda te na ko la by force di nga tëdda 11 ñëpp nelaw nañ man fii laa dëkk Lancaster Mosque rek boppi ko bi seen néeg 11 doo dégg am benn picca bu yëngatu ci te ñu gëm ne kon lii lu am la parce que naka ngay forcé doomi jaamu ne ko demal tëddi soo tëddiwul su ma la jàppee naa la nga fay juróomi junni 5000 dollars bi ci loo xam ne du dëgg nit ñi dañ war a eewu te xam ne jamono moo dee dox ni mu ñëwee ñu jàppee ko noonu man noo gëm la man jamono bala ñoo dem mhm. naka nga gisee tey nguur gii nii nga xam ne mooy nguur yi Adama Barrow mhm. yéen waa Banjul wala ñun waa Banjul mhm. naka la ñoo jëlee nguur yi Adama Barrow si kaw feebar bii nii naka nga gisee nguur yi Adama Barrow maanaam si gàttal Adama Barrow nguuram lu du def effort dina àgg fii sax waaye kër am na fi maalo diwlin sukur ba si man ñuy jox jot naa loolu man man gis naa effort bu mu def parce que mu ngi bañ Gambia gaañu moo tax mu def ko bi parce que xam na ne Gambien dañ dëgër bokka si li ma ñi ko war a wax waaw xale yu ndaw yi jógte ees eh, xamuñ lan moo xew si aduna lii rek moo mun a tax ñu em ba feebar bi em benn place fi ñu em fii yàlla emale ko fii ñi si gaañu yàlla jégal leen ñun loolu la ñaan yàlla neexut timis ak timis nga dugg sa néeg sometimes like, xam nga ten ko la nga sa sometimes like di am li nga nekk ci tàngaay bi neexut waaye nag wér gi yaram moo ëpp teman waaw te man Adama kam yërëm nag jigéeni Gambia kañ la fi éeg amagu si sax foo yées mu ngay def lu mun pour Gambia fi dafa am yar dafa am yar tontuwante wut soo ko ne benn am nañu président yoo xam ne soo ne benn ñu ne la téeméer moom fi mu toog la toog dafa dégg yu bari waaye daf ne pat boolewul daraa ki wax Banjul bu njëkka surtout maa bari li xela egaan <laughs> dooma daaw la moo fa nekkoon bokkul dooma daaw moo fa nekkoon xalaatuloo sa taay mi nawet nga jaar ko fu noonu sant jaar fa dangaa wiri wiri ut yoon ba àgga fi nga bëgg a àgga kon ni moo liggéey suñ ko gisit ñooñu ku nekk nit ki su la xasee bay bañ mënut a gis dara luñ koo defal waaye ñi nga xam ne safa nañ moom na déglu ñooñu ñu ñu ngi si gannaawam tey ñu si gannaawam ëllëg. ñu da nga la yow laal fu fu garaaw. Banjul tey ak mhm. Banjul Dimba. parce mhm. que ñu ne Banjul Dimba neexoon na trop. Mhm. naka nga gisee comme laay yoon yi nga xamoon ne nekkoon Banjul Dimba ak yoon yi nga xam ne moom la ñoo defar tey biir Banjul fi naka nga ko. compiyaayee daal yow si sa gis-gis. Banjul amutoon yoon bu njëkk ci fekkee man ah. yoon yi dafa yàqu woon def ay pax bu nawet jotee yëpp def doo mun a xàmmee ndax lii ma baase la wala dama daala yëpp ay jaxasoo comme li ko jama si te waxee soo daan dem xew da ngaa jël sa kokati téye ko tër ci li paat ba àgga sol sa daala toog soo ñibbi tamit same thing noonu nga dee def loolu moo xewoon Banjul démba waaw Adama Baro daal mu ngi liggéey dëkk baa macha allah nañ ko fi bàyyi fii ba nekk five years dëkk bi na mel ni fanaaw man gëm a jóg dafa daf ñu di génnee ci génnee safara dugal ñu àjjana man ci sama gis-gis parce que nit amul dara lu dëkkuwaayam ak dëkkam comme outsider yi daan jógee a beneen dëkka ñëw fii soo leen waxee ne fii mooy capital bi dañ ko dee yéedi te dëkk Kouri ba Gambia dafa dafa rëy spécial yi Banjul Kouri waaye soo ne fii mooy capital dañ ko dee yéedi te mu ngi dina ma raam ak ñun ndanka ndanka te yal nañ bu yàlla jàppale ñu gën koo gunge ba ca kanam a kanam ba fuñ bugg a àgga ñu àgga ak moom mbokk yi yéen a ko dégg kon jaaboy ma bàyyi la nga relax wu tuuti kon mbokk yi yéen a ko déggandoor ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Gloucester ak Moskureer foofu noonu lañ nekk nii comme ni ma leen ko waxee rek wax naa leen ko soo leen bëggee xam li nga xam ne moo xew Banjul si Covid bi wala feebar bi naka la ko waa Banjul jëlee ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla toppaleen Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi muy lan Sahel Entertainment Studio foofu ngeen mën a yónnee seen commune si wala maanaam comme ni ko gaaree seen bataaxal si foofu ngeen ko mën a yokkee ma delluwaat rek si nga xam ne mooy suma système bi di Ndeye Awa Ndeye tey naka nga gisee li nga xam ne développement bi nga xam ne moo nekk biir Banjul macha allah macha allah dëkk bi fi mu nekk nii macha allah jamono jawara laa judd yaay jaame ñëw Adama Baro li ma gis taay bi Adama Baro mosuma koo gis bi ma juddoo ba fi mu toll nii wallaahi Adama Barrow kon ñi yëpp mu ngi ko defar ñun suñ kon bi moom su xam naa dinaa def bunta Gambie xaay defaat bunta doon sonni ba kaw waaw ndax Gloucester ni mel nii fi mu nekk nii ah. xale bu romo Gloucester moo tilim xale bu romo mag xaleel mag ndaw yëpp naa Gloucester moo tilim Gloucester ñu commencé nu nii duñu defaral Gloucester nii macha allah kenn ko yàlla la fal fu mu bëgg a eggal Gambie na ko yàlla eggal daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam. waaw oh, anti anti ne. dégg nañ ñu ne Tambou seen daan dem parti di gën a suñu seen daan waaw. dañ daan yóbbuwaale suñu silipaas si mbuus. waaw lu waral loolu. yoon bu goñ yoon bi yëpp bon koñ ñu bon dëkk bi bon macha allah. Adama Barrow bi moo start bi moo commencé ñëw alestre pour meeting wàccu because of nit ñu bari ak poto bu nekk si suuf. liñ ko njëkk mooy ñu ni waajal bi te macha allah bi statue mu ngi yëpp a ngi baax su neexee yàlla te yëpp yal na ko yàlla eggale sa ñëpp ñu kontaan moomu kontaan si daraja yi ñu jaaru léegi Alioune bala ñoo dem ñii ñu ne amoon na taw bu fi xewoon taw bu rëy bu ñàkk gis nga ko social media am na ñuy wane Banjul mu ngi flotte wala liggéey bi nga xam ne moom la Adama Barrow di def tali yi baaxut lan nga am fuy wax si loolu añaan am nga doomi Adama moom du du mut macha allah ñi dañoo de wax lu baax ñii di wax lu bon waaye yal nañu yàlla may xol bu set ba mën a wax lu baax ñun ñëpp incha allah rabbi yenn yi moom soo faruta nit ki sax suy def lu baax sax danga ko naan mu ngee def lu baax waaye nga gis ne mu ngee def lu baax nga ne déedéet li baaxul añaan la bokk yal nañu yàlla mosal si xolu

façon liggéey bu nekk mu ko su defaree Docker port ñëpp ay liggéey foofu noonu incha allah rabbi. xale li Banjul nga xam ne ñëpp xale li Gambie laa wax. Mm. waxuma la Banjul kese de xale li Gambie ñëpp dinañ fa liggéey. waaye fooguloo ne ñun waa Banjul ñoo si war a gën a mun a. incha allah su balaa ñuy jël ko ka ñu jël Banjul njëkk a incha allah rabbi su neexee yàlla waaw dama ko waxee noonu rek. waaye mm. xam nga balaa ngaa génn fu dem combo ne yaa ngi jëli waa Komba yi waa Banjul nga say njëkkaat dugal. Mm. te dina des nga jëlaat waa combo yi roof roof leen si maanaam ñu gëstu waa Banjul li njëkk ba ñu dafaa naat. Banjul Adama dafa ñëw wërsëgam. yal na feebar bi génn xam nga wax naa ne jeex na. Hmm. te jeex na incha allah yal na ko yàlla génn si àdduna bi yëpp mu jeex tak tak tak ngeen seet développement mooy ñëw te gën a yokk rek di dem incha allah. jërëjëf. Ah, ma bàyyi la nga ma demaat si bi nga xam ne moom ngi taxawee ne mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek mu ngi nii fii nii nga xam ne mooy Johnson yi Mosque Road ak Gloucester foofu noonu lañ nekka di waxtaan ak suma sista yu baax yi nga xam ne ñoom lañ ci fekk tey muy kan muy anti Ndeye Awa ak suma anti raw nga xam ne moom moo fi mu ngi nii toog ma bàyyi ko mu wax anti gis nañ ne ñu ne Adama Barrow liggéeyul loolu lan nga am pour wax si loolu Adama Barrow daal buñ ne liggéeyul waxi iñaan la loolu waxi añaan la parce que gumba sax si nga yàlla jéggal ma ci kàddu bi ñi seen but sixa sax siga sax suñ doxee ci biti dinañ xam ne tali bañ daan dox ak tali bi ñuy dox léegi du benn tali bi ñu daan dox ak tali bi ñuy dox nii fu mu nekk nii du benn parce que bu njëkka li may wax mooy bu njëkka waaye yàlla yi dañ daan dox ci koñ yi di dox si koñ yi di nit ñi di leen dimbale ay moytul moytul moytul moytul fu mu ne amatul moo loolu la waral ma wax ne waaye yalla yi buñ doxé sax fu mu nekk nii dinañ xamné ne Adama Barrow mu ngi liggéey parce que da nga dox si talibu normal ya, mu ngi mu ngi tan taliba ñu jup so wax lolu iñaan la lolu iñaan la Adama Barrow ñu ko gërëm bu baax di santa di ko gërëm bu baax si parce que bañjul ñun ñepp fi lañ juddoo fi lañ yaro te fi lañ màggee tamit gis nañ lu fi am comme niko suma yaay jama waxé rek bo daan dem xew rek nonu nga démé rek dangaa sol sa eh, silipaas yóbbuwaale sa coquette soo demee ba jub xew ba nga sol daala yi même ba sanse foofu nataalu def li nga def sooy génnaat solaat sa silipaas dem ñibbi sa kër lép lu ko waral tali bu bon la waaye léegi fu mu nekk nii loolu yëpp amatul te si nguuri Adama Baro si lañ ko ñàkkee loolu noonu noonu yëpp ndi bu baax fu mu nekk ngeen sant yàlla bu los moom laalu ko woon laaluñ ko woon waaye fu mu nekk laal nañ ko dañ doon caalit ñun ñëpp dañ doon caalit di gulosta gulosta independence drive independence drive waaye fekka li ci kanam rawati bët li ñuy wax li ci kanam rawati bët moom moo nekk noonu xamuñu woon ne dina egsi wala du egsi dañ caalit noonu rek waaye fu nekk alhamdulilah macha allah am nañ yaakaar gis nañ ñu doore Gambie xaay fële ne di ñëw boor bii nii waaye ni ngi sant yàlla boo baax di ko gërëm di ko gërëm di ko ñaanal parce que Adama Barrow lum ñu su ko waxee su ko waxut yëpp teg nañ ci suñ bopp su waxee ak su waxut li si suñ xol yi moom dafa mel ni daf ko doon nekk di ko riit xam na ko parce que dëkka buñ la jagaralee tali rek yaa ngee commencé sant yàlla ñu ngi koy ñaax nag lépp lu mu bugg a def benn na ko def fukka lépp lu nekk ci xelam ci lu baar rek na ko ci yàlla jàppale. léegi lan nga am ci wax nga xam ne tey lan nga doon wax Adama Barrow si lan la war a yokkal léegi yan développement ngeen bëgg a pour mu gën a yokka especially biir Banjul fii wala Gambia in general. xanaa mu dimbale jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy ñun jigéen ñi ñooy yaay yi ñooy jur njaboot gi te njaboot gi tamit ñu ngi toog si lum dimbale njaboot gi rek lum lum def rek xeet nañ ko nañu yokkaat rek jàppale ñu jigéen ñaa ngi toog yuut si yaa ngi toog muy góor ak jigéen ñëpp a ngi toog. ne ñu jàppale defaral xale yi liggéey pour ñu liggéey na hôtel si dem na lu luñ xalaat ci lu baax rek lu mu xalaat lu mu yéene ci xolam ci lu baax rek loo xam ne développement la pour réew parce que ñuy ñee yeneen réew soo déggee ñuy wax si ne lii ak lii ak lii lañ bëgg dañ ko gis si yeneen réew réeróowuñ mbir ni ngay gis Sénégal suñu ñu dëkkal nii rek ñoom seen facturier seen lu nekk mu ngay nekk di dem terewut ñoom ñu ngi ko waaye ñu ngi leen ñee ci loolu ñu ngi leen ñee si seen développement sa yooyu noonu so nañ royukaay roy daal ki nga dikkal roy ko boo ko royee rek ci lu baax rek dafay dem incha allah jërëjëf anti ñu bàyyi la nga noppale ko tuuti mm-hmm. mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu comme ñu ngi nii mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii nga xam ne fi nga xam ne mooy Moskrod Moskrod ak ah, Gloucester foofu lañ nekk comme niñ leen ko waxee rek feebar bi nga xam ne moo ñu sonal muy ban feebar muy coronavirus ñeneen ñi di ko ooyee lan Covid 19 ñeneen nii ne lan mbas mi moo ñu sonal mbas mi nan naka lañ mën a def pour mun a fagaru mooy lan foog ñuy sol suñ face mask di raxas suñ loxo yi comme nii rek always ñuy raxas suñ loxo yi ak omo soo amul omo na nga uti lan hand sanitizer nga def nii always wax naa leen ko ñuy def nii rek ñu def suñ hand sanitizer suñ loxo rek saa yuñ toogee rek nga xam ne amuñ ndox ak saabu ñu def suñ hand sanitizer raxas suñ loxo yi nii rek da ngay gis mu ngi nii kon comme ni ma leen ko waxee rek moo koy wax naa leen ko mbooleem loo xam ne bu nga ko xaw xam Banjul fii nii nga xam ne Banjul fan nga ko mën a amee muy fan Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comment yi wax naa leen ko maa ngi ni taxawaat ak sama système bi nga xam ne mooy jama jama yow moom da nga tojjax jama ñii ñu ne Adama Barrow liggéeyut ah, liggéeyut lan nga am pour loolu. ah Adama Morom nga liggéey mu ngi liggéey moom ñun de xam nañ ko ñun waa Gulos hmm. parce que Gulos fa ni mu meloon soo fee dugg sax di xalaataat parce que Gulos fa tilim na bee na Gulos fa jagaruñ ko Gulos fa moto mbalit sa gaawut fee ñëw waaw Gulos fa moom moto bu ñu ñooy baleel suñu boppam. wax dëgg yàlla waaye Adama Morom ñoo na xooli bi pour jag def def ñu tubaab. waaw def nañu tubaab de parce que taw bi mujjee suñu néeg yëpp a fees suñu néeg yëpp a fees suñu mbalit yi jaxasoo ñuy dëggaat sax yi jaxasoo maan xool bi si ñàkk a liggéey la waaye xaadim gay ñëw na pour liggéey dëkk bi parce que xaadim gay liggéeykat la xaadim gay moo suma maga daan ànd paasaane Saudi Arabia suñ kër la nekkoon ba ma nekk booy fi la seen club bi nekkoon te xam naa ne pare naa liggéey doom yi réew la ndaw yi réew mi la ku am sa liggéey danga ko jox lapitaan bi moo si gën ndeka bi moo si gën tali yi moo si gën ñu ngi ko ñaanal yàlla yàggal ko si place am bi yàlla bu mu si ci dara li moo liggéey yéen nañ toog ba ne ko ndam laangu te incha allah dina am ndam parce que jàppale na président bi jàppale ñu ñun ñëpp. sant jama gisee ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ñu wax ne dëkk bi Adama Barrow liggéeyut mu ngi toog rek yow lan nga am fi nga xam ne ñoo nekk si daara si nga xam ne ñuy def commerce yu noonu waaw xëy na ñooñu seen gis-gis leen gis di wax lu leen ne am nañ si droit waaye waaye ñu ñu fi dëkk président bi gis li moo def mu sañ nañu wax ne li moo liggéey baax na ñooñu seen gis-gis leen am parce que nit ki nag moom boo amee sa gis-gis loo wax kenn amata lu mu la fee wax waaye waaye ñun ñu am suñ gis-gis di gis li Adama Barrow def parce que duñu mën a wax ne liggéey dara parce que man noonu laa gis seen gis-gis dama léegi ñu ñëwaat ci couvre bi ñu ñu ñu ci couvre bi nga xam ne moom la nguur gi tëral tey naka nga gisee couvre-feu bi nii naka nga ko gisee ci loi bi nga xam ne moom la nguur gi tëral. waaw loi bi baax na am na suñu am na suñu baax am na suñu baaxul waaw loolu moom lu gën la sax parce que nit la ñoo aar ba twenty one days suñu sa naka laa mujjee parce que suñu baaxul benn si man parce que ma dama dee jaay guddi moo tax ma ne baaxul. man dama dee jaay reer guddi moo tax ma ne baaxul mu ànd ak feebar bi mu dem ñu bàyyi waaj ñu mën a jaay suñu reer bi loolu moo tax ne baax na baaxul parce que ñu liggéeykat yi guddi la ñu doon am maak yi taxaw suñ ko naree continuer ba illaa tamit baax si ñun nan ñaan yàlla mu ànd ak feebar bi twenty one days bi dem loolu la ñoo ñaan yàlla yéen a ko dégg moom mu ne moom dafa ñaan yàlla daal mu ne curfew bi baax na si moom baaxul si moom wax na digga jaaykat la waaye mu ne dafa seetlu woon bi si naka la moo demee jamono ba la ñu nga dem tey man développement ni Banjul lay wax ak feebar bi nga xam ne moom la lan ngay ñaax ñi ñi fi nga xam ne feebar bi ñu lan nga am wax ñi nga xam ne ñooy yaay yi ñi nga xam ne ñooy téye xale yi si biir kër nga am wax. waaw yaay yi affaire feebar bi ñu. yaay nañ ci yee yi. na poli téye seen doom yi dañoo bàyyi seen doom yi nekk si ndox mu tilim bi dañoo bàyyi seen doom yi fayantu dañoo bàyyi seen doom yi doon raxasu parce que ñoo fee yokk a feebar yi man poli yi laay wax parce que poli yi defuñ dara parce que den tilim beena beena ngi nii soo gisee xoti poti ye korigét ye yëpp li nii mboot ye unka ye jox yi mën na see dugga nga ñëw laal dugga sa biir kër lekka mu nga gën a amaat feebar man poli yi laay waxal wali den tilim number one ñooy yokk feebar si dëkk bi te si ñoom ñoom ñun ñu xees leen feebar si ñun ñu xees la gën a man nag maa ya, ngi wax suma mbokk yi neen raxasu di raxas seen doom te suñ marché sangu parce que marché la ba fa nekk ak ku nekk dugg sa biir sa sa buntu nga sangu ba set soo mënee xool sa mbuba nga xool sa mbuba nga wéyal man loolu la am pour advice la mais ñetti yoon lay sol mbuba sa bés su ma toogee fële nit ñi bu fay sax xam nañ ma jógee ñu may la maa ngaa sangu parce que man bi damaa toog fii gis ñu yóbbu nit ñi parce soo koy gis saa yi nekk doo nekk nit dangaa xalaat rek te nañu waa dëkk bi dimbale nañu kañ suñu dimbale si mbalit yooyu yooyu yëpp mën a wàññeeku man loolu lay ñaan yàlla nañ ñu jàppale dimbale ñu ñu ngi liggéey nag waaye nañ yokk seen liggéey waaye nañ yokk seen liggéey ñu mën a génne mbalit yooyu yëpp dëkk bi mën a set waaw. mbokk yi yéen a ko déggandoor mu ne mu ngi ñaan fuy lan kansul bi dimbale ñu comme niñ leen ko waxee rek ni ngeen ko déggee xel te bañ koo dégloo xool xam nga moom séeréer la dafa jos kal nii rek waaw niñ ko déggee xel te bañ koo dégloo xool. comme ni ma leen ko waxee right now ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Mosque Road ak ak Gloss sax foofu noonu lañ nekk tey ñu ngi nii nii yéen understand ñu ngi nii taxawoon si moo xam ne mooy suma benn sista still now ma bàyyi ko moom tamit mu wax tamit li nga xam ne moom la gisee feebar bi nii anti naka nga gisee still now lan nga am pour li nga xam ne xale yi still now pour ñun ñi sol max nga xam ne di raxas suñ loxo yi lan nga am wax si loolu. ma am wax mooy nañ leen digle li ñuy wax ko digle li ñuy wax li ñuy wax suñ ko jëfee incha allah yàlla dinañu jàppale yàlla dinañu muccale nañ leen jàppa liñ wax pour ñu def ko buñ ko ñu def ko. ñi def li ñu wax suñu bopp suñ ko defee dinañu bigé max max covid 19 as a fight eh. dia dia ogo chugo max alway gaynde jaakara allahu akbar allahu akbar waaw léegi li ma doon digle tamit ak li ma doon wax mooy Adama Barrow mu ñoo liggéeyal réew mi liggéey naa tali yeeg yooyu noonu ñun ñoo si des parce que suñ la liggéeyalee tali liggéeyal la sa koñ benn baax li ma waa dëkk bi mooy ñuy bale ne ñuy bale di setal parce que su fekkee naan defar nañ tali yi ba pare terewul mu ngi fuloon tey gis nañ ko si Abdaay fi ndox mi war a jaar mbalit mi ñëw fa fata ko ndox mi du dem so ñun ñi dëkk ak suñu mbalit suñ balee si biir tilimal ko génnee ko si biti kon dafa dem fa tax fi ndox mi war a jaar ba dem nañ leen jàppale suñu boppam ñun waa réew mi ñun nañ leen jàppale suñu boppam nañ jàppale Adama Barrow parce que Adama Barrow mooy li moo liggéey li moo liggéey noonu suñ ko si jàppale woon kon duñ mën a dem nañ ko jéem a jàppale jàppale suñu boppam suñ defaree tali bi ba tali bi baax nañ leen bale nañ leen bale parce que si biir Kombo bi tamit am na fi ñu gis yoo man maa gis comme wan laaj Bakoteh Bakoteh ñoom seen koñ yi ñoo génn di suuf lañ amee suuf lañ amee waaye teewul ñoom ñu ngi ko nekk di ko toppatoo ko toppatoo buru buru Gloucester Mosque Road and then Gloucester foofu noonu lañ nekk tey ñu ngi taxaw sorry nu ñu leen ko waxee rek mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi fii nii nga xam ne mooy Mosque Road ak Gloucester foofu noonu lañ nekk tey di waxtaan ak suma sista bi anti bala ñoo def rek ñu bàyyi la ak li nga xam ne moo xam ne curfew bi yow lan nga am lan nga am fi nga xamne ñoy ñooy yi nga xamne ñoy rité riite ak police ko kon su moom mootul ndongo yi lan nga am fi wax ci lolu non wa ah xanaa li ma pour wax len rek moy dama leen ñaan dama leen ñaan suma rakay suma mag ni moy nogo yu goor ni ak ñu jigen ni parce que waa Banjul dañu ne wax nogo lolu yëpp kaf lañ ko jëlé rek fon lañ ko jëlé waye lu du pour fon du pour kaf nañ len tok suñu kër yi su ñëwee ñu tok suñ kër yi rek fekk jaamal lañ ñu bugal ñaamal lañ ñu bugal fagaru na moo gën faju te degana, naa balaa ngaa dem degana, naan dégg fekk loo xam ne lu la romba di la faagaagal la jarul ngay dem ndax la dina maateem du maate bu dugal sa loxo nañ leen toog suñ kër yi di ñaan yàlla ñu toog suñ kër yi di ñaan nit ñi di ñaan ndongo yi yooyu noonu di ñaan suma waajur yi tamit ñi nekk ci kër yi nañ leen ñaan doom yi di leen wax ne fukki waxtu bu jotee daal ku si nekk nga toog fukki waxtu ba bërset lu waay dox si suba ba fukki waxtu sottiwul boo ma ne si biir fukki waxtu woowu noonu war na see mën a sotteeti ñu leen toog 21 days lañ wax incha allah su 21 days yi jeexee rek yëpp dina jeex sobee yàlla. mbokk yi yéen a ko déggandoor comme ni ñu leen ko waxee mu ne nañ toog suñ kër yi di sol suñ feesu max yi ba pare ñuy raxas suñu loxo yi every time comme ni ma leen ko waxee rek loolu rek moo ñu mën a sawelloo si feebar bi kafiw bi du du puy dara wala puy lan puy jos puy ñu mën a daxa feebar bi nga xam ne moo ñu sonal fii nii si biir Gambia loolu rek moo moo tax ñuy def kafiw loolu moo tax ñuy sol max maa ngi wax naa ne comme ni ma la ñu ngi nii fi nga xam ne mooy Mosque Road ak Closter foofu noonu lañ nekka si mini market Johnson bi foofu noonu lañ nekka maa ngi ni am sama benn broda bi nga xam ne man ma moom yàgg na yàgg nañoo waxtaan yàgg nañoo waxtaan so comme niñ ko waxee rek mbokk yi ñu ngi nii fi nga xam ne moom mooy Mosque Road ak Gloucester foofu noonu lañ nekk pour waxtaanee li nga xam ne mooy feebar bi. feebar bi naka la ñu mën a def pour sawel suñ bopp mooy lan foog ñuy raxas suñ loxo yi ñuy sol suñ face mask yi ba pare ñuy ñuy bàyyi social distance ba pare ñu wàññi public gathering yi loolu rek moo ñoo mën a soweloo si feebar bii nii comme ku bàyyi fan yii passé président bi wax na si affaire feebar bi lii moo ko nekkal fifth time mu ngi joxe speech muy affaire yi feebar bi li ma si gën a li ma si gën a ndaw si waxi président bi mooy lan taxawuñ si fii politique dañoo wax rek yàlla tax loolu moo tax ñuy wax mooy lan gaam ñi ñëpp nañu bokk ñu nekk benn ñu mën a xeex feebar bii nii parce que am noonu na feebar yu bari yi nga xam ne jaar nañ ci dañ nekkoon benn feebar bi dem muy yan façon yi feebar Ebola bi ñëwoon na fi ñu ñëpp ñu nekk benn ébolistique ñëwoon na fi tamit ñu ñëpp ñu nekk benn feebar bi génn fi so ngelaw ngir yàlla ak yeneen bi Gambia ñu ngi leen a ñaan ñu ñëpp nañ ñëw ñu nekk benn ñu xeex feebar bii nii nga xam ne moo ñu sonal sonal àdduna bi yëpp muy ban feebar muy coronavirus ñeneen di ko ooyee Covid 19 ñeneen ñi na laan mbas mi loolu rek a ñu sonal mooy lan naka la ñu boolee xol yi bokkal loxo ñu ñëpp ñu xeex feebar bii nii nga xam ne feebar bii nag du affaire yi politique du affaire yi dara nañ jël politique ñu teg ko fële ne le ñu xeex li nga xam ne mooy feebar bii nii muy lan coronavirus ñu di ko oyoo Covid 19 loolu rek la ñu mën a def pour na a sawel suñ boppam comme ni ma leen ko waxee rek wax naa leen ko ne soo leen bëggee xam li nga xam ne moo xew Banjul biir Banjul naka la kafiw bi di demee naka la waa Banjul jëlee feebar bii nii toppaleen ñun ñi nga xam ne mooy laan Sahel Network TV foofu noonu rek ngeen mën a amee li nga xam ne mooy Banjul fii nii mooy Banjul fii nii mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek comme ni ñu leen waxee rek mbokk yi ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Mosque Road Mosque ak Closter foofu lañ nekk tey nag ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Johnson Mosque Road si boori mini market bi foofu noonu lañ nekk nii nii comme ni ma leen ko waxee rek feebar bi nga xam ne mooy coronavirus moo ni sonal sonal àdduna bi yëpp sonal li nga xam ne mooy waa Gambia ñëpp mun naa ne du Gambia rek waaye àdduna bi yëpp la sonal mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek wax laa ne leen ne biir Banjul soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy li nga xam ne waa Banjul naka leen jëlee feebar bii nii wala naka leen jëlee kafiw bii nii toppaleen ñi nga xam ne mooy Sahel Network TV wax naa leen ko subscribe leen si YouTube channel bi wala ngeen follow ñu si Facebook page bi muy Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi mbokk yi dañ am léegi nii nga xam ne xibaar bu tiis bi nga xam ne moo waaja si biir Banjul muy xibaar bu tiis a tiis a tiis a tiis moom la ñu jox léegi léegi léegi nii maa ngi wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk si mi nga xam ne muy kan muy imam Tafsir Gueye moo gën a àdduna léegi léegi léegi léegi nii moom lañ moom lañu tàggee dafa mel ni Banjul am nañ dëj Banjul amati nañ beneen dëj muy dëj bu mag a mag a mag muy kan muy imam Tafsir Gueye mi nga xam ne moo dëkkoon Lancaster nekkoon na fi nga xam ne mooy député imam by the time of kan muy imam Abdoulaye Diop moom moo génn àdduna moom la ñu wax léegi léegi léegi nii ñu ngi ko jaale waa Banjul ñu ngi ko jaale ki nga xam ne mooy imam ratib bu Banjul muy kan Alaaji Aliou Cerno Maska moom moo nekk imam ratib biir Banjul tey Banjul amaati nañ beneen dëj muy ban dëj muy kan imam Tafsir Gueye moo génn àdduna yal na ko yàlla yërëm te jégal ko ay bàkkaaram te xaare ko ajara fidansi ñun ñu fi des na yalla ñu yàlla yërëm te aate ñu si yërmandeem comme niñ leen ko waxee rek Banjul na beneen dëj muy dëj du tiis waa Banjul amatina dëj muy kan imam Tafsir Gueye moo génn àdduna comme niñ leen ko waxee rek noonu la moo demee biir Banjul wax naa leen ko mboolem loo xam ne bëggoon ngeen ko xam biir Banjul seetaan leen li nga xam ne mooy Sahel network TV ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Mosquito Johnson foofu noonu lañ nekk fii nii ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii nga xam ne Mosquito Johnson ak Lancaster foofu noonu lañ nekk fii nii nga xam ne mooy Mosquito Johnson comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii biir Banjul di leen waxaat rek ne leen ne am na dëj bi am na dëj biir Banjul fii nii nga xam ne tey Banjul amati nañ beneen dëj bu tiis déj bu tiis a tiis a tiis lañ am muy kan wax naa leen ko muy kan imam Tafsir Gueye moo wàcca liggéey moom la yàlla jël moom la ñu wax léegi léegi léegi ni ñu ko jaale waa Banjul ñu ngi ko jaale imam ratib muy Ali Thierno Aliou Maska ñu ngi ko jaale ki nga xam ne mooy président Republic of the Gambia muy Alhaji Adama Barrow ñu ko jàllee waa Banjul yëpp comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi nii fii nii maa ngi gis sama mbokki ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy dee def patrol tiim bi fii nii ñu bàyyi leen ñu waxtaan ak ñoom ñoom lan mooy seen liggéey asalaamualeykum bro nakam nag no problem what's your name a student mm-hmm. well but we have volunteering for, for making sure that people, you know, go by the curfew when it starts by 10. 10 o'clock. 10 o'clock, yeah. So are you guys posted in Banjul here? Yeah, obviously we are posted at Banjul uh, at this this this this uh, way here. Exactly this way we are taking care of it is this junction, the next junction, and the next junction. That's mean you guys are posted at the uh, Moscow Junction, uh, sure. Independence Drive, and then Gloucester, and then Lancaster. Sure, sure. So are you guys having any difficulty with the guys, with the boys? Well, actually, we, since we were here, I don't remember a day when we faced a difficulty because once they see us coming in group, the first thing they do is to run. And then if they run on, we run after them, then before we follow them, they enter inside their house. And once they're in their house, we don't have right to cut them anymore. See? Yeah. So what advice do you have for those who are doing that? Well, the only advice I have to say is just that they have to stop it because it is not good. You know, like if the paras are the ones here. Once you run, if they follow you, they have their sticks. They can hit you on your leg or any other part. And then if you are wounded, there's nobody to be blamed but yourself. Yeah, I think that's all I have to say. So the, the thing I can advise to the country is that let's just respect the curfew. One day or the other, you know, the virus will one day go and it's going to be a history for the country. So thank you all. So how do you see this virus, coronavirus? well, advice do you have for the parents, especially for the young They don't believe that this virus is existing. So what do you have for them? What message do you have for them? Well, actually, I want to let the people know that the virus is real. You know, the virus it is in the country. So we have um, hospitals like um, MRC that is located at Westfield, I think so. Yeah, and then they have high numbers of cases in the Gambia here. And then the virus last time I was at Lameng, in my face a person fell down, having difficulties of breathing. So it shows that really the virus is in the country, and then we have to be strict and respecting the the restrictions that they gave us towards um, the the, the COVID-19, which is the washing of hands, the social distancing, and wearing of face mask. Yeah. mbokk yi yéen patrol team nga Independence Drive of Mosque Road ak then Gloucester Johnson ah, Lancaster Johnson and then Pasiberan ñoom ñooy patrol team bi foofu noonu ñu nga xam ne ñoom lañ poos foofu noonu comme ni mu ko waxee rek ñu ngi advice ñi nga xam ne ñooy parents yi nañ jàpp seen doom yi ñu bàyyi di riiti wante ak security officers yi because heure kenn si kenn mun naa daw daanu tànkaam dama ñu ko kenn wala nga daw gaañu ñaanaluñ ko kenn wala ñu jàppala sa waajur yi di ñëw di fay 5000 dollars yi dafa métti kon ngala ngir yàlla ak bi nañ suñu kër yi comme niñ ko rek ñu biir ni na keneen patrol I'm doing good you doing good. Yes, sir. So, are you guys part of the patrol team? Yes, we are part of the patrol team. Your name, please? My name is Isaac Lawrence. You guys are students? Yeah, we are students. Are you going to volunteer? Yeah, we are three volunteers doing the job. So are you guys trained for are you guys trained for security? we are trained with well self-defense to protect ourselves against any criminal activities that come towards us. That's how we're trained. So, do you have any difficulty in, around here? Well, actually, there might be some because the job itself is not easy. Because you're going after people, trying to stop them, then not knowing who you're going to come in contact with. Maybe the person might be a rough guy with a knife, with a bottle. So as we are free volunteers, we learn self-defense. So we're really at any cost to protect ourselves against any criminal activity and to also do the job in order to protect the country. Are you guys people? No, no, we're free volunteers. You guys are free volunteers. Yeah, we are you sure you guys are free volunteers? We're free volunteers. So, do you have any any problem with the, uh, with young people in banking in general? Well, no, no, no. no I can say no. Everything is going according to plan. We're going around telling people things at doors each day and each day. So now people are getting used to it. Before 10 o'clock, everyone is inside doors. So it makes the job for us easy. Yeah. So that's mean uh, that's mean Banjul people they really obey the law. They will obey the law because once they see you coming, they fear, and once they see you every day, it comes to their mind that ah, it's time. Let me stay inside doors. After they will respect the rule and they will abide by the law. So what do you have to say about this virus? Let's say that this virus is not real. So what do you have to say? Well, to those out there who might think that the virus is not real, um, it's definitely real. And as far as we can see, that's not only attack other countries, but it's also here in Gambia, and many people have been victims. Over at I was said, as my fellow students said, a person fell down in front of us and he died. And the case was the COVID-19. So to all those that think that the COVID-19 isn't real, it is real and it's out there. So I think it's best left we should follow the measures of the WHO. We should always stay apart from each other, two meter distance, wash our hands, obey the rules and regulations to help prevent COVID-19 and to make the Gambia a safer place thank you very much your name again. yeah my Lawrence. thank you very much Lawrence. mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi amaat keneen ki nga xam ne moo nekk fii nii borom you okay? what's your name? Uh, my name is David. David David. David Mulenge. David Mulenge. Yes, sir. You guys are the patrol team. Yeah, we are part of the patrol. team. Patrol team. Yes, sir. Are you a security officer? No, actually we are students, but we are volunteering because we are ready to help the country. Because, you know, it is always said like you have to be a patriotic citizen. You always have to be ready to serve your country. You know, my government teacher always told me, you don't have to ask yourself what the Gambia has done for you, but you also you have to ask yourself what you've done for the Gambia. So we are ready to serve the country. That's why we volunteer to patrol to make sure that everybody is safe indoors. So you say that you're you're a student. Yes, sir. But by this time, I think permit school is not yet open yet. Yes, Still now we are on a lock, lockdown. Yeah, lockdown. So I think then by this time you have to focus on your books. Yeah, yeah. So why? That one is not a problem. We normally focus on our books because we have time for books and we also have special time for patrolling. So the patrol job does not affect our educational career. It is different from that because we normally schedule ourselves. We have time for our books and then we have time to patrol. That's so, okay. Do you have any difficulties in this area? Difficulties? No, no, no. Actually, we have no difficulties when exercising our duties because whenever we reach here, people normally recognize us, and whenever they see us, they fear and then they start running away, saying like, "Oh, they're here." So we have to go inside because it's almost time. Because they are all aware that if they stay here by 10 a.m., they're still outside. They're gonna be caught, and they and they're gonna pay five thousand dollars so that's why whenever they see us, they run away. So we face no difficulties. So can you explain to us, yes, if you see a person by around, let's say, quarter past 10, quarter past 10, let's say by 10 o'clock, when you see the person is walking away, walking. Well, so what kind of approach do you have? What kind of approach do you well, Well, when we see the person, at first we approach you kindly because we don't just approach you aggressively because we don't know who you are. You might have something that you will use to harm us. So we don't know who you are. Therefore, when we see you, we approach you kindly and then we ask you what you're doing outside in the middle of the night. So if you have no genuine reason, well, you have, you, you have to come with us because that's our job. Then when we see you, we ask you. Then if you give us a genuine reason, we, we will advise you. We will tell you more about the law and then we ask you to go back inside because you're not supposed to be outside at that time. So that means the time is going to be 10 o'clock. So yes. everybody should be indoors. Yes, sir. So what advice do you have for those who are giving the police, so giving you guys problem? What the advice? Well, the only advice I have for them is uh, they should stop uh, giving us problem because this is the law. It has been implemented by the government. It is not our own doing. So they have to respect the law and they have to abide by it. Whenever they see uh, the paramilitary or the patrol team, they don't have to fight them. Anything they say, they have to respect them because they are empowered by the law to carry out the exercise. So they just have to abide, uh, by everything. So since since you started this They will just go inside to make sure that they are not caught. Because they know that whenever they enter inside, we have no right to follow them into their houses and arrest them. No. We only have problem with them if you are outside. If you're found outside, that's the time we have a problem with you. So that's mean you guys, you do not have any problem in Banjul? No, we have no problem here. everything is okay. Your name please again. Yeah, my name is David. Thank you very much, David. Thank you very much. mbokk yi are part of the patrol team. ñoom lañ tuur fi nga xam ne moo nekk diggante Independence Drive and then gloss foofu noonu lañ nekk amaat na fi keneen ki nga xam ne moom ta si patlool ci doon nekk borom ko. yaa ngi tuur yaa ngi fan tur bi waaw e gobet ne Lamine Touré ko de Lamine Touré Lamine Touré yeah Lamin Touré from where from Brikama Brikama yeah so you guys are part of the patrol team yeah we are part of the patrol team just temporarily for temporarily for temporarily mm -hmm. are you a security officer No, I'm a student at the moment. Student at where? Uh, Gamesi Secondary School. Gamesi Secondary School. Mm. But, but, but Mr. Ture, yes. but you are not a security officer. Mm -hmm. And by this time you have to concentrate on your books, mm-hmm. isn't it? Yes. So what's, why? Why do you want to go well, by this time? The reason is that because as a good citizen, I take this as, you know, a priority of myself to contribute, you know, like assisting those who are part of, you know, the patrol team in order to help them, you know, to carry the spirit, you understand? So I think it is, you know, um, it should be a priority upon every individual to fight this COVID-19, either directly or indirectly. So we are all participating, helping our government, you know, um, to fight against you know, the COVID-19 by sending away, you know, people in the street when it is time. So. So do you have any problem with the people of Banjo? No, Especially when you guys are posted here. Do you have any problem here? No, we don't have any problem with them because actually whenever we approach them, we approach them politely and then, you know, talk to them. So they always, you know, how to up. Um, they always comply with us and then they leave the street and then go home. So that's mean, that's mean you guys don't have any problem in Banjul? No, we don't have any problem in Banjul. So that means you guys, Banjulian people, they obey by the laws? Yes, yes. So what do you have, what advice do you have for your fellow youths? Well, for the, for the advice I have for my fellow youth, first of all, I would like to talk about the face masks, if you don't mind. Okay. For the face mask, as you all know, it's very, very good, and then it is also helping us, you understand? But what I observe is that face masks should be worn by those that show signs and symptoms you know, of the disease, which is you know, COVID-19. Because this face mask, number one, it causes um, lack of oxygen. And then when you lack oxygen, it, it also causes brain damage. So if you have brain damage, God forbid, you are finished. So I would like to um, advise my noble government if they can make the face masks obligatory for those that show signs and symptoms of the virus to help, you know, the, uh, to help prevent the, spread of the virus. Because face masks, like I told you, it causes articles are difficult in breathing. Like myself, I am an asthmatic patient. Sometimes I do find it difficult to breathe normally. But anyway, I will also try my level best to comply with them. Maybe like in public, I use it, but when I am alone, then I can just leave it like eh, a W. thank you very much, Mr. Mm -hmm. Before we go, some people are saying that this virus is not real. What do you have for them? What, what, words, what advice do you have for them? Well, basically, <coughs> that is a sign of ignorance, those um, that have this concept that the virus is not real. Because we have seen all over the world, it has killed thousands of people, and then the virus is increasing rapidly, you understand? So and it is also existing in this country, whether we know it or not, because one of my friends, like I can say some of my friends, the concept they have is that they do not see anyone then of the virus, they don't see anyone or they don't know anyone having the virus. That is why they say the virus is not existing in the country. But to be honest, the virus is existing in the country. Mm -hmm. So what measures do we have to take about this virus? Pardon? What measures do we have to take about this virus? Well, this virus, we all need to be careful and then, you know, um, observe the preventive measures, you know, given by, the, by our health personnel in order to help ourselves or to prevent ourselves from it. Because Allah says, help yourself and then I help you. It is not like you say, when I, when I have the virus and I die, it is Almighty decision, yes. But you also have to help yourself to avoid the virus by staying at home, avoid uh, large crowd, avoid handshaking, and other stuff. Yes. And then wash our hands always. Yes, and then wash our hands, you know, always clean, you know, and then also be using this thing, how to call uh, desensitizers frequently. Thank you very much, Mr. Yeah. Your name again? Lamine K. Thank you very much, Mr. Ture. Mm-hmm. mbokk yi yéen a ko déggandoo yéen a dégga nga xam ne moom la Lamine Touré jot a wax public gathering always ñuy sol suñ face mask yi ñuy lan raxas suñ wala amuñ eau de javel dañ ñuy def hand sanitizer loolu rek mën na mun a moo solo lool li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne moo lambee àdduna bi moo disturb world bi muy lan ban feebar coronavirus some of them call it covid 19 am na ñoo xam ne ñu ne mbas mi mbokk yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi nii biir Banjul fii nii puy wax ne li nga xam ne moo xew si biir Banjul naka la waa Banjul jëlee kafiw bi naka la waa Banjul jëlee feebar bi nii comme ni ma la ko waxee rek fan ngeen ko mën a amee muy Sahel Network TV ñu ngi leen a ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi muy Sahel Network TV Facebook page bi muy lan Sahel Entertainment Studio loolu mooy suñ Facebook page bi jërë ngeen jëf mbokk yi virus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. tas benn benn woon ñu di rek nga toog nga def waaw mun naa ñëw waaw. ah Wilfred. naan da nga jël di ko denc. waaw sol sol ko tur bi. Ah, maa ngi ci da Diaby. Mariama. Mariama Diaby. Mariama Diaby. Mariama naka. waaye. yaa ngi fayam. Ah. waaw Mariama tey nga nekk jaaykat fii nii muy Johnson ak li nga xam ne mooy Gloss. Hmm. ndax gis yaa ngi yaakaar ah, hmm? ne duñ faam lu doon laay yaakaar ne duñ faam. cause like. when it's 10 o'clock, everybody has to be home. Mm Yeah, because of this virus. So it's a rule and it's a law, and that's what we're following right now. Yang mi nga xam ne ay kat fii nii nga xam ne mooy Jocelyn Moscow ak Glo Star wax nga ko si sa la bi nga xam ne ten o'clock ñëpp dañoo paak kuy dem. loolu nga wax léegi tey jëndkat yi nga xam ne ñoo I just have to compromise because um, it's a one meter distance su gars I think fi nga taxaw no fa la gars yi dee taxaw wow, and maybe close relative I stay with them and xam naa leen ñooñu they can come close to me Wow, but it's not comme nekkul na loo xamante ne da nga ko war a compromise because it's about our health so maa ngi fagaru daal and su ma wàccee tamit dama dem seen ma raxas small loxo if possible I even take bath so that is how I do with the customers léegi customers yi suñ bëree comme like customers yi suñ bëree na dañ jëlee social distance na dañ leen di dañ leen di advice pour ñu def social distance. to be frank nag non honestly and tamit comme ni waxee because jaay bi nekk di dem noonu so day am um, comme su gay ñëwee comme kii demee kii ñëw they don't come together at the same time xam nga ndax comme situation bi ni ko demee right now yeah. so léegi lan nga am kuy wax ñi nga xam ne ñu ngi feebar bi ñu feebar bi amul. Mm. Uh, yeah, because smoking, yeah. ah man nag honestly I was part of them nag bokkoon naa si not doon wax but I'm not. but like seeing things and comme situation. Like situation didn't make news and all that Come, like oh, hell, I'm bi this is real even though daluma but according to what people are saying comme ñu boole rek mboolem. because you will have to compensate for that because ma client baa ngi ne waaw gis na comme ñu nañu client bi mu ngi dem xanaa ma oo ko booy booy booy kay kay kay mu jaay la kay kay mu jaay la comme ñu bàyyi ko rek comme mor comme yéen mu ne client bi bugut client bi rita ko loolu moo tax ñu bàyyi ko pour mu dem gis nañ ñi nga xam ne ñu ngi nekk si biir bitig bi ñu ngi jëm a yàkkamti ñi nga xam ne fu jënd seen reer yooyu noonu puy roos bi mun a àgg kër comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Johnson ni mos Road ak den Gloucester foofu noonu lañ nekk nii nga xam ne wax naa leen ko ñu ngi nii biir Banjul wax naa leen ne soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy xew Banjul feebar bi naka la ko waa Banjul jëlee wala naka leen jëlee li nga xam ne mooy curfew bi toppaleen Sahel Network bi foofu rek ngeen mën a amee li nga xam ne mooy xew Banjul wala coffee bi naka la mo demé bit Banjul waxna len ko wa Banjul la fi ma yegalat len né tay Banjul am nañ decc decc bu reuy muy kan muy alhaji imam Tafsir Gueye mo génn aduna légui légui ni nañ ñokk yëg li nga xamné moy mooy bu tiss bi ñu ko jalé ñëpp diko jalé wa Banjul diko jalé imam ratib bu Banjul diko jalé ki nga xamné moy président réew mi muy kan alhaji Adama Baro mom moom lañ ko jaale ñu leen wax rek ñu demal ak yéen ñu dem ak yéen a sat break ñu ñëwaat ak yéen jërë ngeen jëf si kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen

loo teg tigana bi loo loo fee def. ten tiga wu. ah oh, léegi ñaata minutes nga am pour ten tiga. naka dina réer nga daw. waaw léegi dina leen réer ba pare ngeen dem ngeen tëddi ah. yéen a ngi dégg ah, mbokk yi comme ni ñu ko waxee nii fi nga xam ne mooy mosquée. nga xam bëggee xam naka la couvre-feu bi di deme ñëw leen fii nii nga xam ne mooy Banjul fii nii mooy fan Sahel Network biir Banjul fi nga xam ne moom mooy Mosque Road ak Kasibeeraan foofu noonu lañ nekka li nga xam ne mooy ñu ngi suma benn assistant bi ne xool ko mu ngaa daw ñu yaa ngi daw de lu xew xanaa da nga no police yi ah non non non du loolu waaw kon dama nga tëddi gaaw nga dem tëddi moo ko yéen ko dégg moom mu ngi roos kuy dem nga xam ne li nga xam ne dem tëddi comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi fi nga xam ne mooy Passiberan wax naa leen ko toppaleen ñu rek di nga xam li nga xam ne mooy biir Banjul fii nii ko gis gaa ngi jéem a traité pour shopping ut ay reer kuy dem tëddi comme ni ñu ko waxee rek. kon ni ñu leen ko waxee rek gars yi ñun ñu di dem di ut ay reer ñuy dem di tëddi ñun ñoo ngi roos li nga xam ne mooy reer moom la nit ñi di def pour pour ut reer comme gis ngeen ko ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Passibérane foofu noonu lañ nekk yaa ngi gis boo yaa ngi taxaw yaa ngi téye ay mbuuru booy nekkoon nag orange yaa ngi koy waaw sonal mag bi. non Sonko Sonko naxoon nat yaa ngi baax lu baax nat ba dafa mel na nga pare woon tey gars yi pour daw de. non non man cob laa doon ut nii soo doon a séef yooyu. Ah, riir la lii du caaxaan am nga. yëpp sa bopp moo gën. thank you very much thank you very much léegi lan nga am pour wax ñu nga. diite wante ak suñ suñ mbokku ndongo yi. non parce que feebar bi soo gisee ñu la nga tëdd mm-hmm. fagaru moo tax. donc pour ñoom te feebar bi def dee spread kenn mun na ko am jokkoo ñëpp te ñu soxluñ loolu suñu dëkk bi dafa ndaw xam nga dëkk jaamu la tamit balaa caa ku nekk na aar boppam ci feebar bi. lan nga am pour wax ñi nga xam ne feebar bi ñu ne amut ñu ne feebar bi politique la. non feebar bi lu am la. waaw feebar bi lu am la su feebar bi amutoon di kon du ñu ne tudd leen seen jumaa yeeg suñ business center yi xam nga. soo gisee ñu ne nañ tëj rek feebar bi lu am la kon nañ def lu loi bi wax te lu moo gën loi bi tam du ñu wàññi def loo xam ne daf ñoo lor am na loolu la am pour wax am nga mbokku Gambien si tam nañ bàyyi suñu xel parce que feebar bi du caaxaan loolu laa am solo jërëjëf. jërëjëf thank you very much ñu boole war was la mën a investir mbokk yi comme ni ngeen ko waxee rek gisaa naa fi suma beneen bureau. waaw na ko def. Odo waa si ay kii. bureau yaa ngi ma wax gisaa ngeen roof sa léew. waaw ok bi ko soo comme ni nga ko waxee comme ay dina teel a solo bi ko ñu dem tëri. so as usual ñu ngi dem uti reer nii pour dañ ko waajale tëri bi comme ni ko gars yi doole ko noonu xam nga fi la gën a nekk. tur bi moom bala woon na. ok man maa ngi tudd Mohamed Senda Ndiaye. Mohamed Ndiaye. Mohamed. waaw. man maa yow ak ñeneen ñu mbokki ndongo yi. dañ dee riite wante cee lan nga am wax si loolu. ok that's not nice. di nga dégg ah suuf tamit jotee we have to go home we respect the time ah li xam nga ñu fexe daal ñu def ngay wax because of lii this is so we have to do what they say so before some situation yi ñu ñu ko so Maodo lan nga am pour ñi nga xam ne feebar bi ñu ne amul ñu ne feebar bi politique la. bon réel ko daan si sa wàll ku ko amee waaye digga digga ñu ngi ñaan nit ñi ñu ñaax comme nous avons un waxee ministre of finance ñu dimbale youth si nga xam nga ñun tamit ñu dimbale suñu bopp ñu nous avons un séeréer ñu téye suñu loxo yi ba ñoom ñu nous avons un stuff yaa ngi gën jërëjëf thank you very much nous avons un stay blessed comme mbokk yi comme ni leen ko nous avons un ngi nii fi nga xam ne mooy bantani mosque nous avons un nga xam ne mooy pasidora foofu noonu lañ nekkal gis nañ fi léegi léegi nii suñu benn sista moom tamit ñu بيان كذا يا يشي ما ده يروح في كده ممكن واو فوقنا كم كاي كم يلا كاي كم يلا كم يلا نيجا هم نموي نيجا هم في نيجا هم نموي نسري نيجا هم يروح في بس في كده نيجا هم مال كفيو بي نيجا هم مال كفيو بي نيجا هم مملا مملا يدور جبتال نخلا ما دم يدور باندو ما من التحاوس ما من البرورة doo naka nag. yaa ngi fayal. yaa ngi nii gis naa la tur bi wax. Badou. Badou eh. naka nag. yaa ngi fayal ah. soo rawaas yaa ngi ok. Badou gis nañ ne gis almost ten o'clock Badou. wala nga am problème te yow Red Cross personnalité la. so da ngeen a génnewaat tey pour pompe dëkk bi ndax. non right now dañ jógee inspiré nag ma dem uti si suma réew mi. Mhm. ak euh, na ma jógee just well euh, just in time rek ma ne xaaral ma doxantu tuuti la ma dem. tëddi tëddi waaw Badou Kane daañu bàyyi la lan nga am puy wax yow mi nga xam ne Red Cross foofu nga liggéey yéen ñi nga xam ne yéen a def pompe biir Banjul lan nga am puy wax si affaire feebar bi gaañu feebar bi du réel. waaw lan nga am puy wax si loolu. waaw asalaamaaleykum. waaw comme feebar bi nag comme comme ngeen ni ko wax waxee daal am ni ñu ko nañ ko def tenakul la ñu gaay ne ñu dugal ne ne dañ am pour war a bi wax right now ñu nekk di topp si usine bi ngir damaa gis sax am na ñoo xam ne solution machine right now right now am na ñoo ñu ngi daal seen machine noonu soluñ ko ba pare loolu wa warut everybody must put on a mask ba pare dëkk bi nu mu nekk demee su public gathering yi social gathering yi mu ngi over happen ñeent yaa ngi xew dajaloo foofu te yow doo xam keneen ak keneen keneen fu mu jógee loolu moo tax daal ñu ñu war a bàyyi xel ci feebar bi daal ñu feebar bi kenn du xam fu moo jógee ngir naa maa ngi taxawaaye waaye xamuloo sax ray naa man fu fan laa jógee góor man nag loolu laa amoon lépp pour wax ne. waaw jërëjëf Badou ñu bàyyi la rek nga àgga kër bala nga am ak si bala nga am problème ak gars yi. waaw thank you very much mbokk yi comme ni ngeen ko waxee rek. waaw ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy Mosque Road ak Pasibira foofu noonu lañ nekk gis nañ ne mbedd bi yëpp sët na ñëpp a ngi daw fii dem tëddi fii ñëpp a ngi roof fii li nga xam ne fii dem tëddi fii dox xale ñëpp a ngi taxaw si mbedd bi fii ñi ñëpp ñoo daw ñu leen ko gis gars yi daw fii dem fii dem tëddi it's almost past ten fi nekk nii ñëpp a ñoroo li nga xam ne kuy dem kër kuy dem dugal seen kër ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii fi nga xam ne mooy Mos Crop ak Pastéral Johnson foofu noonu lañ nekk ñëpp a ñoroo kuy dem kër kuy dem tëddi because almost sharp ten fu nekk nii gis nañ ne Mos Crop yëpp a ngi empty li waral loolu mooy lan curfew bi moom la gars yi di respect loi bi buñ tëral mooy lan ténaculoos bëggatuñoo gis kenn si mbedda bi so loolu moo tax ñëpp a ngee daw kuy dem seen kër yi kuy dem tëddi comme niñ leen ko waxee rek soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy xew covid bi naka la moo demee Banjul ak waa Banjul naka lañ jëlee li nga xam ne mooy feebar bi muy covid 19 ñu ñu ñeneen ñi coronavirus toppaleen ñu si Sahel Network TV mooy YouTube channel ñu leen a ñaan nga subscribe ngeen mën a xam li nga xam ne moom la li xew Banjul fii nii suñ Facebook page bi mooy lan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a senee seen comment si wala nit ñeneen di ko seen bataaxal si foofu ngeen ko mën a senee rek toppaleen ñu biir Banjul fii nii mu ngi nii nga xam ne mooy Mosque Road ak Pasiberan Johnson foofu noonu lañ nekka is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. foofu noonu lañ nekk ñu ngi ni nga xam ne mooy boori kër ku ñoo ooyee biiri biiri muy alaaji Moodu Musa Njaay moom la moom bu këram moo nekk ni on our right hand side foofu noonu la nekkee ko jaale ñi nga xam ne ñooy waa Pasibeeraan di ko jaale Gambia yëpp du ko jaale di ko di ko jaale waa Banjul di ko jaale waa Gambia yëpp ñu ngi nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ni Passy Beroun foofu noonu lañ nekka Passy Beroun ke réeréwuñ dul ne Passy Beroun fii la alaaji biiri biiri dëkkoon muy kan Gambian legend muy Gambian footballer muy biiri biiri fii la dëkkoon ñu ko jaalee waa waa Njaayeen ñi nga xam ne ñoo nekk Passy Beroun fii ak waa Mbojeen ñoom ñëpp ñu ngi leen a jaale ki nga xam ne mooy biiri biiri kenn réeréwuñ mbir ne Biri dafa liggéeyal Gambia fan yële passé rek ñëpp a ngoon na affaire am di ko jaalee waa Banjul di ko jaalee Gambien si yëpp di ko jaalee di président Republic of the Gambia muy président Adama Barrow di ko jaalee ñi nga xam ne ñoo ñooy waa Pasiberan ñu ngi nii ñi nga xam ne maa ngi nii fii li nga xam ne mooy Pasiberan foofu noonu lañ nekk foofu noonu lañ nekk nii ñu bare ñoo laaj ndax dañoo dañoo jàpp ay nit waaye dafa mel ni ñoom ñeme ñuñ ñeme ñuñ para yi wala ñeme ñuñ police yi nga xam ne mooy curfew bi nga xam ne moom la ñoo def biir Banjul fii nii comme ni ma leen koy waxee rek ñu ngi nii Passy Beeraan foofu noonu lañ parce que diggante Passy Beeraan ak fi nga xam ne mooy Liwalin bor boobu noonu lañ nekkee kenn réew mi ne Passy Beeraan fii nii muy fan Passy koñi biiri biiri foofu noonu lañ nekk di ko jaale ñi nga xam ne ñoo nekk waa Pasiberan di ko jaale waa Banjul di ko jaale ñi nga xam ne ñoo nekk Mbojeen famille bi ñi nga xam ne moo nekk Pasi ñi nga xam ko jaale ñépp di ko jaale waa Banjul ñëpp Alaaji Njaay muy Alaaji Moodu Njaay ñu ko ooyee biiri biiri wax naa leen ko ñu ngi nii fi nga xam ne mooy pasibéral pasibéral lañ nekk fii nii pasibéral nag moom dafa nekk nii mun naa ne set na doo fi gis kenn ñëpp dugal nañ seen kër yi dugal fu nekk nii fu nekk nii moom ten tëgga na ñëpp ñu ngi roos kuy dugal seen kër yi mbokk yi ko niñ leen ko waxee rek wax nañ leen ne soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy xew Banjul wala kafiw bi naka la moo demee Banjul jàppaleen fi nga xam ne mooy Sahel Network TV mooy si YouTube channel bi ngeen a ñoo def ngeen subscribe ngeen mën a xam li nga xam ne mooy xew Banjul koo xam ne comme ni ma ko doon waxee rek koo xam ne nama nga Banjul nga nekk bitim réew rek subscribal li Sahel Network TV muy YouTube channel bi suñ Facebook page bi muy Sahel Entertainment Studio muy muy suñ Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen commune si wala comme ni ko gars yi dee waxee rek foofu ngeen mën a yónnee seen bataaxal yi comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi nii Pasiberan Pasiberan lañ nekka nii comme ul Pasiberan foofu noonu lañ nekka di xool na nga xam ne naka la ko waa Pasiberan naka lañ jëlee curfew bi nii wala waa Pasiberan naka la ñoo dundee feebar bi muy ban feebar muy coronavirus ñenn ñi di wax covid 19 ñeneen ñi ne mbas mi comme ni ngeen ko waxee woon rek comme ni ko borom xam-xam yi waxee feebar bi lan moo ñu see mën a muccaloo rek foog ñuy raxas suñ kanam yi foog ñuy raxas suñ loxo yi di sol suñ face mask yi ba pare ñuy bàyyi joxe loxo yu bari yi ba pare ñuy def ñuy def social distance loolu rek moo ñoo mën a génne si feebar bii nii ñu si mën a tee génne sax xam naa ne dina xaw a wàññeeku tarap comme niñ leen ko waxee rek mbokk yi ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Pasiberan ak ki nga xam ne mooy samjak foofu noonu lañ nekka ni pasiveran moom pasiveran lañ nekka ni li nga xam ne mooy pasiveran ak samjak foofu noonu lañ nekke ñi ni nadd pasiveran boori mboojen fi nga xam ne foofu la alhaaji biiri njaay judoo mu ngi ni muy number six bi Mbodiène ñu ngi koy jaalee waa Passibérane yëpp di ko jaalee ñi nga xam ne ñooy Mbodiène famille bi bi nekk Passibérane ak Njaay famille bi bi nga xam ne moo nekk Passibérane fii nii comme niñ leen ko rek mbokk ñu ngi nii fi nga xam ne mooy Passibérane foofu noonu lañ nekk muy ol Passibérane Passibérane not amoon na ak team bi nga xam ne moo tuddoon FC Warriors amoon na team bi nga xam ne moo tuddoon tamit ñi nga xam ne ñooy xam ne ñooy FC Warriors team bi nga xamoon ne moo tuddoon wéelo si ñii yëf fii lañ nekkoon Pasiberan mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek si njëlbeen bi Banjul tey am na dëj dëj bu mag a mag a mag lañ am muy kan muy alxaaji tafsir imam tafsir Gueye moom la yàlla jël si guddi si moom la yàlla jël si guddi si bu yàggu nii lañ jot information bi moom ñu ko jaale ñi nga xam ne ñoo nekk famille di ko jaale waa Banjul di ko jaale imam ratib bu Banjul muy kan alhaji Cerno Ka di ko jaale ki nga xam ne mooy président de Republic of the muy alhaji Adama Baro si excellence yi alhaji Adama Baro di ko jaale ñépp di ko jaale waa Banjul alhaji Tafsir Gueye moom la yàlla jël si guddi si muy nekkoon na fi ki nga xam ne mooy woon député imam bu Banjul muy taami imam Abdoulaye Diop taami imam Abdoul ndem nekkee imam ratib bu Banjul mooy woon nekkoon na nayib fini rek dañ jité ci si nga xam ne King Fahad Boss tay mom la yalla jël ne ko jalé ñi nga xam ñoo nekk wa Banjul du ko jalé ñi nga xam mo nekk famille mi du ko jalé imam ratib muy kan alhaji Cerno ali Maska du ko jalé wa Banjul Muslim Elders nga xam tay tey ñoom la yalla tek fini nii ñu amee suñu walum diiné ci bir bandul du ko jaale Supreme Islamic Council bi ñepp jëlee ñu koy jaale waa Banjul ñëpp ñëpp ñëpp comme niñ leen ko waxee rek mbokk yi ñu ngi ni fii nii nga xam ne mooy mooy Ken Street bor boobu lañ nekkee lu war sa bori Albion School sori bori Methodist ak seen ak Wesley foofu lañ nekkee nii kenn déedéewul mbir ne foofu kenn déedéewul mbir ne ñu ngi ni bori Wesley School si gannaaw Wesley School mu nekkoon school bi nga xam ne ñëpp a ko xamoon biir Banjul fii nii fii la mboolem koo xam ne nekkoon nga scout fii nga daan ñëw fii practice yi fii lañ daan ñëw fii practice muy boys cricket fii lañ daan ñëw di def seen training muy Wesley school fii ñëpp mun naa ne tri ko tax Banjul yu bari bokkoon nañ scout nii ñi nga xam ne ñu ngi woon boys cricket boys cricket nag ñoo fi daan ñëw ditirer muy Wesley School muy school bu yàgga léegi nag school bi moom nag nekkatu fi mu nga ba boori fi nga xam ne foofu la ñu wax GTTI fële ne la si biir Banjul GTTI annexe si boori Abdaye si biir foofu la school bi nekk léegi boo koy comme ni ñu leen ko waxee la ñu ngi nii fii nii biir Banjul wax naa leen ko si suma biir wax ne leen ne soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy xew xew biir Banjul naka la Covid bi dee demee biir Banjul naka la ko waa Banjul jëlee toppaleen Sahel Network TV mooy YouTube channel bi suñ Facebook page bi muy leen Sahel Entertainment Studio ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Ken Street foofu noonu lañ nekka Ken Street moom maanaam doo gis kenn li nga xam ne loolu gis rek mooy lan li nga xam ne moto yi li nga xam ne ñoo paak loolu lañ ngay gis kon ni ma lañ ko waxee rek waa Banjul waa Gambia tey moom Banjul am na dëj bu mag a mag a a muy kan kan moo génn àddina muy kan imam Tafsir Gueye moo wàcce liggéey moom la yàlla moom si guddi di ko jaale ñi nga xam ne ñoo nekk famille di ko jaale ñi nga xam ne ñoom Muslim Elders di ko jaale ñi nga xam nga xam ne ñoo nekk di King Fahad Mosque Committee di ko jàlle imam ratib bu Banjul di ko jaale His Excellency Alhaji Président Adama Barrow ak entire ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gi ñëpp di ko jàlle ñëpp comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi nii fii ni nga xam ne moo nekk Banjul Banjul lañ nekk nii ngi nii si Lasuwaaf diggante Los Suwaaf foofu noonu lañ nekkoon gis nañ ne boor bi nii moom Los Suwaaf yëpp set na wax dëgg yàlla dafa mel ni waa Banjul foog foog nañ li nga xam ne moom la luwaa bi tëral dafa mel ni waa Banjul foog nañ li nga xam ne moom la nguur gi tëral ku xoolal Los Suwaaf jamono nga xool Los Suwaaf diggante Los Suwaaf Dofsin li nga xam ne ne wéccu ko wéccu ko yu bari am na fi. yan façon yu yooyu ko muy tali yi melon, meloon légui tali yi ma sha allah ko dopsin, Dofsin Dofsin nim, légui nim nim mel sha allah ute naa li nga xamné non la meloon Dofsin fi dañ fi daan jaar di dem di seetaani nawetaan so daan dem bu si paa bi da nga borandu ngir lan yoon bu bon tay ma sha allah tali bahna, di nga mëna dof free di nga mën a dox sa daala du tilim dinga nga mën a dox te doo dugal si biir ndox ni meloon daaw ak ni meloon ren dafa utee ñu guddi ak bëccëg ñu ngi jee jaajëfal lekk ki nga xam ne mooy his excellence di président Adama Barrow gis nañ yoon yi moo defar biir Banjul gis nañ naka la moo toppatoo biir Banjul ñi ñaan rek mu gën a yokka affaire si moom doyut waaw ñi gën a ñaan rek mu gën a yokka ñu ko gërëm si li nga xam ne mu ko defar biir Banjul muy tali yoon yi moom macha allah comme ñu ko ñu ngi nii fii li nga xam ne mooy Liman Johnson Liman lañ lañ nekk nii Liman foofu lañ nekk Liman lañ nekk Liman nag moom fii la fii la bit ah, stores yi nekkee business area la nga xam ne moolaan bi nga xam ne ñooy jaay ak jënd seen area bi fii la nekkee muy ñan muy ay armanti compagnie ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy jaay li nga xam ne xeeti naan yi lekka yi maalo yooyu dulli ñu boor yi lañ nekkee fan ni fii nga xam ne mooy liimaan ñu ni liimaan Johnson ak Picton Johnson foofu noonu lañ nekkee si gannaaw Paju School kenn réeréwul mbir ne Pa Diouf ñëpp xam nañ kenn mooy Pa Diouf mu nekkoon principal bu strict strict strict strict ki nga xam ne Pa Diouf moom soo fa ñu rek soo dugasee si biir school bi ko séenee rek soo dressut properly sax soo ko séenee rek looloon daf yëpp di nga ko bàyyi mboolem ko xam ne jaar nga Pa Diouf rek nga xam kan mooy Pa Diouf ñu ngi nii fi ne mooy Hagan Johnson ci boori cooj bi catholique cooj bi foofu noonu lañ nekkee comme ni ñu leen ko waxee rek Banjul moom fu nekka ni is almost eighteen past ten ñëpp dugal nañ seen biir kër yi waaye gisaguñ benn bi nga xam ne police mu ngi ko riitee wante ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo de dundee teel a tëdda comme ni ñu leen ko rek ñu ngi nii fii nga xam ne mooy mooy boori Higaan foofu noonu lañ nekkee Johnson Dobson comme ni ma ko waxee rek Major Johnson Dobson fii nii kenn di réew mbir la Dobson fii kenn mënu foonoon a jaar daa ngi nawet foog nga booraandu waaye tey allah ñu ngi defar tali yoon yi ni mu mel macha allah ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo senti yoon yi ñu ngi tamit président Adama Barrow comme ni ñu ko waxee rek gis li nga xam ne moom la dig waa Banjul mu ngi koo def waaye ngala ñu ngi ñaan rek mu gën a yokka li nga xam ne moom la war a def biir Banjul waa Banjul nag amul dara luñ mun a wax di ko jaajëfal lépp ki nga xam ne mooy président Adama Barrow gis nañ ni mu taxawee Banjul tali yi macha allah tali yi yaatu nañ set nañ uddee naa jamono bi nga xam ne ñun tey mi ñoo dem school temps bi ñoo dem school fii doo fi mën romba lu sax soo daan romba rek foog nga buuraandoo comme ñu ngi nii fédéral ñoo oyee fédéral kenn di réew nen la décembre Christmas especially Christmas fii lañ ko dee defee cambaxloo bi fii nii léegi-léegi da ngaa gis am ñoo xam ne sax dañoo dox ba daanu si biir pax waaye tey macha allah gis nañ fii yëpp ñu ngi ñu ngi ko ñu ko defar pax yi sax ñu ngi ko defar yëpp ñu ngi ko kibiir waaye jamono boobu noonu ñu ne ñu loo dox sooy dox foog ngeen booraandu soo booraandoo soo moytu sa mën kaa dugg si pax ñu ngi ne jëm soni fi yaram ak fi transfert foofu noonu lañ nekkee tey fi jaral tey ni mu mel allah kon bi defar nañ ko defar nañ ko defar bu rafet ñu ngi ni Johnson New Street ak Fijaral foofu noonu lañ nekka tey waa Fijaral moom comme ni ko waxee rek Fijaral fii mooy xoli Banjul ñeneen di ko ooyee heart of Banjul muy xoli Banjul noonu lañ ko do ooyee Fijaral moom ni mel moom car macha allah ñu ngi nii fi nga xam ne mooy Allen Street Allen Street kenn di réewum mbir ne time Christmas si Johnson Allen Street ak Fijaral kenn mënu fee romba foog ñu booraandu waaye léegi moom kenn du gooraandu di nga dox nu mu la neexee sa dara du yaaxu nga fakastalu du ko si biir pax parce que maa ngi mën a ay two years back man ñii su ma ko di wax ak yéen sa dox na ba du ko si waa waaw waaye fu nekk nii alhamdulilah macha allah koñ gi moom ni mel rafet na yaatu na liggéey bi baax na yëpp ñu ngi ko sant ki nga xam ne mooy président Adama Barrow moom mi nga xam ne tey mooy taxaw fi ñu liggéey tali Banjul ñu ko jaajëfal si loolu noonu mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy nga xam ne mooy Allen Street dañ nekk nii Allen Street naan moom doo gis kenn ay moto yu paak ñi ñaan rek ñi xam ne ñoo dee paak seen moto yi fii nii nga xam ne mooy Allen Street wala si biir Banjul ñu bàyyi double paak ni ñoo paak because ni ñu ko defee nii naysut wadigan dëggal ne xew na comme ni ñu leen ko weer rek ba pare ñuy ñaan ñi nga xam ne ñooy ñooy jaay seen kër yi ñu ko jaay ñi nga xam ne ñooy doomi réew mi ba pare ñu baax di samp store yi nga xam nekk yi bi ngi nga Lancaster Lancaster dañ Lancaster mbir Lancaster Lankar Standard mooy koñ bi nga xam ne koñu Alxaaji Babacar Dieng nekkoon na fi mayor nekkoon na tamit président ah, nekkoon na di chairman of Banjul Muslim Elders mu nekkoon suñ maam suñ papa mu nekkoon bañkat ñu ko daan ooye cenkis bañkat lawoon ah, wax nañ ma ne ma di nañ ma si suma nopp ne am na benn time boo xam ne ñu ngi waroon a julli korité président ca war a xawal li ñuy xaarande ko waxtu bi jot ni nañ jog ni julli waaw amna mag bu ma dee loolu si suma biir noppa ki nga xam ne moo muy ko ñu di ko mu nekkoon fi mayor of Banjul ko ñam lañ nekk nii fi nga xam ne mooy Lancaster doomam Pasal Dieng nekkoon na fi mayor Banjul moom mi nga xam ne time moom lañ defar Lancaster fii nii muy interlock bloc yi nga xam ne moom tay moom lañ ko defar tay moom foofu noonu lañ defar yi nga xam ne mooy Lancaster waaw defar Stanley Street tay mi pasala jàng lañ defar tali yooyu noonu comme ni ñu ko waxee rek mbokk yi tey am na dëj dëj bu mag a mag téléphone bu mag moo génn àddina tey biir Banjul muy kan alxaaji imam Tafsir Gueye moom la yàlla jël di guddi ci mu ngi ko jaale ñi nga xam ne ñooy familleem di ko jaale imam ratib bu banjul muy alhaji cerno maska di ko muslim elders banjul muslim elders di ko jaale ñi nga xam ne sufri islamic council di ko presiden président alhaji président adama baro di ko ak nguram ñëpp ñu ko kau ñëpp comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nii nga xam ne lancaster lancaster lankasta foofu noonu lañu kan muy koñu kan alhaji Ousmane Dieng lañ ko tuddee won sa koñ bi ba after lankasta bi amoon na time boobu lañu daan ceeñ turi ñu tuddee ko alhaji Ousmane Dieng jàkka bi ngeen a seen nii moo ko fi sampa muy kan alhaji Ousmane Dieng am na ñeneen ñu ko na fi mayor of Banjul mu nekkoon ko am ne bañkat la woon na di chairman of Banjul Muslim Elders wax dëgg neex yàlla bàyyi na fi lu bëree bëri bëri bëri doomam di fois Sala Dieng nekkoon na fi tamit mayor of Banjul moom moo defar li nga xam ne mooy mooy tali bii nii comme mbokk yi nii nga xam ne mooy Lancaster Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. not wash your hands with stagnant water. Make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. Practice social distancing. To protect yourself and your family, and to stop the spread of coronavirus. Stay at home. Tabakoro, tabakoro, tabakoro, tabakoro, tabakoro. Wow, wow, man, tabakoro. You them, you them. ngeen ana leen Tabakoto ñu dem ñu dem ñu dem benn place Tabakoto Tabakoto Tabakoto ana ngeen Tabakoto waaw waaw ma ne Tabakoto ñu dem ñu dem waaw ma ne maa ut café waay ma naan café bu waay jaay waaye sa café bi neexul dara waay di neexul dara driver yow tamit gaawal waay depuis kañ nit ngi toog si moto bi mënuñoo dem waaye man nga def nang sama apprenti bi laay xaar dafa nang ko waay Tabakoto Tabakoto ana ngeen Tabakoto waaw waaw ma ne Tabakoto ñu dem ñu dem eh Tabakoto Tabakoto Tabakoto ana ngeen ana ngeen Tabakoto ñu dem ñu dem ñu dem benn place Tabakoto Tabakoto Tabakoto ana ngeen Tabakoto waaw waaw ma ne Tabakoto ñu dem ñu dem waaw ma ne naa ut café waay ma naan café waay caay waaye sa café bi neexul dara waay bi neexul dara driver yow tamit daawal waay di fekk nit yaa ngi toog si moto bi mënuñoo dem waaye man ma def nang apprenti bi laay xaar dafa naan ko waay yow sani ni ñaaxala way na sama nak way yéen déglu olof dara way sani ni ñaaxala sama nak ay ak ma gaay ay ay jabaate sara mara jakal bes لما سلم اسلام والا دبرت ياما مستك ركعات ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ne xale bu ndaw ci kër waxa ko cër wayoy kula yu ni nga doy raxas bool ne liggéey kër gi sa ñaxadu siit eh, mbaraani weri koor kaka dégga foog nga tiit eh, li ci góor a góor ne jigéen a jigéen a ranu ma ah, dox suñ xol di dokk ñu dëkk si nawet di on and off ne xel du faate mukk mukk ghost and refugees naka ndar ku da way la gante gi di law ndi biis bom bom zim bom bom zim bom bom zim bom bom yabaati

You pull ci raay waay ya bargain ma madara. Why gaa yang cee def dara coow yi apparente que yaa ni ana ku ci yabaate yabaate yabaate yow yow yow yabaate yabaate yabaate yabaate yow yow yow yabaate wax naa wax naa wana ndax waxa wax wah wah wah, tey wax naa wax naa wax naa betaay wax na nga ci bu ma raga ju oy sa yaay ñu ne ku bi ñu ne banta gu tooy la jubantil bu demee ñu la passé na loxo bu seet si bépp ndab ma ma ko lu yàgg la bari na yow mi gis nga ko di du dugg ci bee bu gox ne i ñaan du sambata du muuma kumba nga gasal ba simbombo simbombo simbombo simbombo Yo, yo, yo, jebate. Jebate. Jebate. Jebate. Yo, yo, yo, jebate. waaye na rëjëgin rëjëgin ndax dégg te rëjëgin rëjëgin ndax rëjëgin rëjëgin ndax dégg te rëjëgin rëjëgin ndax ah booy xoolal booy xoolal Zim dum dum, zim